الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جسان فيدوبي كوشي تي في جسان فيدوبي وأنفقوا عن على آلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن ليجزي الله الصادقين بصدقهم ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء ويعذب وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا صدق الله العظيم mbokk julit ñi mbokk taalibe yi ñu ngi nuyu kenn ku ci nekk مولانا أبي habas سيقنا ahmad ibn muhammad tijani رضي anhu عنه وأرضى به ورضي الله an خليفتهما ووارث سرهما بالإطلاق مولانا شيخ الإسلام وبركة الأنام islam إبراهيم barakat al حاج عبد ibrahim ñas ibn الله عنه ñas radiyallahu anhu mbokki jullit noyoo woon nañ njëlbeen li waaye ñu ngi noyoo waat li tax ñuy noyoo waat nag mooy dama leen a waxoon ne première phase bi jàll na ñu ngi ci deuxième phase bi te mbir yépp nag ci ñaar la ne ndax baay bi muy tagg yonentu yàlla muhammad daf ne ko salli alal isnayni ramzati kulli isnayni wa sirri isnayni wa daaka sirrul adali sallallahu alayhi wa sallam kon alhamdulilah Cheikh Mouhamadul Makki mi ñu doon xaar te waxoon naa leen ne tool bi dafa rëy lool waaye waar wi bari lool waaye nag ñun waar wi ñu yàlla tànnal ci toolab baay bi muy Cheikh Mouhamadul Makki Cheikh Ibrahim Niass waar woowu nag moom du hut ci njaatige rek di la yebal ne la demal waaye njaatige bi day sol simbongam ànd ak taalibe yi suñ gasee mu gas suñu roto mu roto waaye suñ góobee mu góob waaye suñ demee ba lekk jot mu bayee ko taalibe yi wan leen ne leen man seen magam taalibe la kooku nag yàlla moo ñu booleeg moom du loo xam ne ñun ñoo ko tànn du loo xam ne moom moo ñu tànn amaan na su doon tànn ay taalibe mën na tànn ñeneen ñu dul ñun mën nañoo ñàkk sens bi waaye ñu tamit suñ doon tànn sëriñ mën na ami tamit ñu juum ndax ay nit rek lañ ba tànn keneen ku dul moom waaye yàlla mooy tànnal nit ki li ko neex ci waxtu wi mu ko neexee ak fi mu ko neexee ak ni ko neexee defee ko ni ko neexee te nit ki sañu see weddi dara mooy tax ñu ne alhamdulilahi jërëjëfe Cheikh Ibrahim ci ndokkeel gim ñu may may gim ñu may may Cheikh Mouhamadul Mekki Cheikh Ibrahim Niass sëriñ bi marhaban Cheikh Omar ibnu Cheikh Ousmane Fati Niass bismillah serigne bi ñu ngi lay ndokkel bu baax jàllale won nañ ay kàddu yo xamne sa dom sa talibé sa kharid haji abdullah Haydara muy as jitu na fi wax ñu lan mo doon taxaway Mawlana Cheikh ibrahim niasti jeunesse bi moy Baye et la jeunesse te ku ne xam na ne Baye dafa waxoon ne fan lay jëlee ay ndaw yo xam ne dañuy sujuutal sama feñu way bi. محمد المشري بيم كو لاجي نكو مظهري nga wax ولا مزهري باي داف نكو مزهري لا wax ما خامن نك باي دافا دغ جامونو سو واخون مزهري رك دانا ام لنين لو خيو لو خامن كين مونو كو لاي وايي بام ني مظهري رك ني سانت يالا مو خون ني تامين يحاضرني فتيان صدق قد اقلصوا الى الله قصدا لن نموت ولا نحيا كون حاج عبد الله حيدر دفال نانيو كونفرنس بو خامن الحمد لله خول ييب دال نانشي كونتان نانشي waye ndax dañu xamne rek nak sa laf bi rek la mën nañu ñoo tan ko xamne mën nañu ko defal waye bi xeli dajé mom ñu ñëpp ñu depo ci waye tamin sa dom Cheikh Mouhamadul Mahi def fi tamin taaliqaat bo xamne damay wax ne nit ñu bax ñi Cheikh Mouhamadul Cheikh Ahmed mu Cheikh Ahmed tijani Al Khalifa dafa wax ne mën nañu bon ñi sax ñu ngi exposer liñ am waxatuma la kon ñi bax ñi lan lañ wara def ñu xamne biir kër gi am nañ ci ñoo xam ne doomi Cheikh Mouhamadul Makki yëpp baax waaye ñu tànn ci kenn nag muy Cheikh Mouhamadul Mahi tey mu defal ñu commentaire bi ci nga xam ne mooy Baye et la jeunesse nga xam ne su ci waxee nit ñi danañ ko déglu ndax wax naa ne yitteem ak xam-xamam ak njubam am sellam war na tax ku nekk bëgg ko waaye nag nit lum namp rek lay gàll yaa ko ko nampal sëriñ bi yaa ko nampal xam-xam boobu yaa ko nàmpal njub googu kon moom tamit ñu ngi koy ñaaral yàlla الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا أيمة الشيخ اجعلنا بهذا المحضر والتعتي بنا تأتي لنا بظفره ورضي الله عن قرب المكتوم مولانا أبي العباس الشيخ أحمد تجاني رضي الله تعالى عنه وعن سائر خلفائه wa ala rasihim cheikhul islam wa saadatul anam radiallahu taala anhu nafana bi barakaati amin ñu ngi leen di nuyu di nuyub lislaam di ndokkeel képp ku fi toog di kontaan ci programme bi niñ ko doxalee euh, di nuyu suñuy kilifa nga xam ne ñoom lañ fekk fii ci jotaay bi cheikh ibrahim cheikh mouhamadul euh, cheikh ahmed tidiane al xalifa cheikh ahmed ibrahim Niass radiallahu taala anhu Euh, ak Cheikh Baye Mouhamadul Haadi mi nga xam ne Cheikh Mouhamadul Haadi bokk na ci ñi darajaale guddi gi ak Cheikh Xaaji Abdoulaye euh, euh, Alxaaji Abdoulaye Haydara mu ngi nii toog suñu wet def fi conférence bi nga xam ne mucc na ayib lool dañaa waxoon ne programme woon pour su conférence bi pare ma taalee waaye yàlla def gan yi nga xam ne ñoo doon ñëw ci sëñ bi ma doon leen yóbbu loolu moo tax ma yéexe agsi waaye ñu ngi kontaan ci programme bi ñu ko jox ak thème bi nga xam ne moom la doon traité nga xam ne itteel na itteel na nit ñi te ànd na ak jamono muy wax ci ndaw jeunesse yi jeunesse bi pour lépp loo xam ne njëriñ la buy dellu ci jeunesse bi jar na ñu koy fàttaliwaat loolu moo tax yàlla toujours mi ngi wax ne ñuy fàttali wa zakkir fa inna zikraa moom mu'miniin ndaw mooy meññeeti mooy meññeti dund dund dund nit ki yépp lu ci gën a foor mooy mooy li li nga xam ne moom la def ci ndaw bàyyi doon na wax ne mag moo gis mu noppalu mu sonn xamal ne ndaw lu noppalu lool kon nag li meññeti dund yépp mooy li nga xam ne mooy li nit mën a am ci ndaw bàyyi nag wax na ne du bépp ndaw waaye ndaw loo xam ne dafay am saqaafa am jikko ju rafet kooku nag mooy Mawlana Cheikh Ibrahim mooy roy teef bu mag bi kon nag suñuy roy su ñuy wax ci ndaw ñi nga xam ne noonu la ko xaaj Abdoulaye doon waxee léegi suñu wax ci mbiri ndaw référence bi nga xam ne mooy bi gën a mag bi ñu am ñun muy Mawlana Cheikh Ibrahim mën nañoo wax ne moom mooy suñu référence bu mag ndax moom ndaw la woon boo xam ne ñëpp xam nañ ko bi fayda bi di tàkk mi ngi ci mu ngi nekk ndaw 1929 30 waaye ndaw loolu nekk exemple du wutoon mag te képp ñi àndoon ak moom yépp kenn nekkutoon ci mag waaye alhamdulilah yi te nan noonu la ko yonentu defee woon ba mu ne tëll Aboubacar ak Omar ak Ousmane ñi àndoon ak moom yëpp juróom yi àndoon ak moom yëpp kenn amutoon ci fanweeri at kooku mooy Mawlana Cheikh Ibrahim dégg dañoo nekk ci jamono joo xam ne nag ah, tëjaliyaat yeeg jamono ji ak technologie beeg réeral na nit ñi ba nit ñi xamatuñu sax seen référence ndax benn njuumte rek bu dem ci réseaux sociaux yi rek balaa nit ñee xam ne dëgg la da ngay gis sax koo xam ne daf ko waroon a freiné waaye kooku moo koy tasaare sax mooy ne nit ñi léegi lu ñëw rek melawu ñëw rek yóbbaale nit ñi ñu topp ci te ñu xam ne ñu topp sax lan la su fekkee ne loolu nag nekk nañ ci jamono jooju nga xam ne jël nañ lu baax mbub mu mbub mu bon solal ko mbub mu baax ba nga xam ne lu baax ak lu bon yépp moom lañ jël denc leen ci benn toile boo xam ne yépp loo loo soxla benn place la nekk suñ nekkee ci jamono jooju nag yaa war nañoo préparer ay ndaw yoo xam ne danañ xam naka la ñuy seggee ci jamono ju bees ji ba segg ci li nga xam ne mooy li baax li bon nag mu ñu mën koo teet moytu ko loolu nag dara gënu cee benn méthode gënu cee yomb mooy lii rek di fàttali di fàttali mooy di zakir fa inna zikraa tanfa'ul mu'miniina di jàngale jàngale mag yi moo Mawlana Cheikh Ibrahim la defaroon démb rek mooy defar tey kon nag ñun ñi nga xam ne suñuy sëlëf jaar nañ ci yoon wi ba nga xam ne yombalal nañ ñu yoon wi ku mel ni nag Mawlana Cheikh Ibrahim mi nga xam ne nag léppam janoo la léppam dafa leer léppam référence la ñim yar ñi ngi nii mbind téeréem yaa ngi nii kàddoom yaa ngi nii ñu koy dégg ku mujjee judd yaa ngi koy dégg su nekkee ci jamono jooju nag kon ku réer wala ku topp leneen lu loolu yow yaa sàggan waaye nag yàlla gindi nañu ci Mawlana Cheikh Ibrahim ba nga xam ne dundam gi yëpp dafa leer ba nga xam ne guddeem yi ak bëccëgam yi benn la daanaka amul luñ ci taale eh, te man mi nga xam ne maa ko war a taale maa maa mujjee ñëw eh, xanaa ñu sant yàlla ci bés bi nga xam ne màgg na màggaay goo xam ne li tax ñi ziyaare si yàlla doy yàlla dajale na ko tey ñu ngi ziyaare Cheikh Mouhamadul Makki mu tombeek ziyaare Seydi Ali Cissé mi nga xam ne mooy baabul xadra loolu nag dafay tegtale ne lépp ci bàyyi la jëm Seydi Ali Cheikh Mouhamadul Makki mooy bàyyi Seydi Ali Cissé mooy bàyyi su fekkee ne yàlla dajale nañu am na ci mbooloo yoo xam ne su duwutoon ñaari bés yee daje danañ ñëw tey kon nag ku ñëw ci bés bi ba pare dellu ci bés bi ma ne dafa mel ni sànni nga benn benn xeer jam ñaari picc ñu ngi ñaan yàlla ziyaara bi nga xam ne ñëw nañ tey ziyaara si yàlla ñu yàlla defal suñuy dellu ñun ñëpp ñu am ziyaada ku ci nekk yëg ne am na dolleeku ci zaahir ak baatin Baye doon na wax ne mbooloo mi nga xam ne ñoo toog fii di ziyaare ci ziyaare la ko doon waxee ak mbooloo mbooloo muy ñëw ak mbooloo mi toog di déglu ziyaara ak suñu fi jógee mbooloo mu fiy jógee mu ne benn bokku ceeg moromam kon tëjaliyaat yi dafa utee oto buy ñëw ak oto bu toog di sol essance ak oto bu fees dell ak essence di dellu melo yooyu benn bokku ceeg moromam kon nag ñun ñëw nañ ziyaara si yàlla wax na ci alquran walaw annahum iz zalamu anfusahum jaa'uuka fastaghfirullaha wastaghfara lahum rasulu la wajadu llaha tawaaban rahiman su jaam yi tooñee seen bopp ñu ñëw ci yow yonent bi ñi balu yàlla waaye loolu du doy yow tamit yonent bi da nga leen di balul yàlla suñ ko defee yàlla dana leen baal dana leen yërëm laaya jooju bàyyi nee na mooy laaya bi nga xam ne mooy mooy laaya ziyaara ndax damirul kitaab gi mu ne dafay continuer waxtu wu nekk ndax yonent du fi jóg mukk yàlla moo ñu wax ci alquran ne waalamu anna fikum rasulullahi kon nag ñëw nañ ziyaara si ziyaara si bi dara taxu ko jóg lu dul dajee ay soppe yoo xam ne sëriñ bi waxu leen ñu ziyaara ko waaye oustaz Mouhamed Keba Lo bi ngeen xam nga xam ne ambassadeur yi sëriñ bi la woon jëwriñ la woon moo doon daje moo créé woon ziyaara bi di ko defee ci këram sëriñ bi bañ ne moom kenn du ko ziyaare ndax moom mooy kan bañ di ko ziyaare si ndax yari Mawlana Cheikh Ibrahima moo mel noonu yëf yi dem ba ëpp loxo keebaaloo ci këram mu gi mu di ko defee kër sëriñ bi mujj gi mu dem ba ëpp loxo sëriñ bi sax ci boppam ñu di ko defee ko woon tey nag yàlla def ah, asamaan si taw fañ ko daan defee mënuñ ko fay defee ñu dajee fii ci kër gan gi di ko fi defee eh, di ndokkeel képp koo xam ne yaa ngi fi teew di ñaan yàlla euh, mi nga xam ne moom la ci xaaj Abdoulaye def ci conférence bi ak Cheikh Mouhamadul Makki mi nga xam ne mooy modérateur bi boobu ba léegi ñiy xaar ñëwee sëriñ bi du ne man lañ doon xaar du ne sama kàddu moo am solo waaye taalix boo xam ne nag dañ ma dañoo programme woon pour ma def ko waaye gan yi ma doon yóbbu ci sëriñ bi moo tax ma yéex waaye ñu ngi ndokkeel ñëpp di ñaan yàlla képp ku fi ñëw yàlla nga yëg ne am nga dolleeku ci zaahir ak li nga xam ne nag mooy sabab bi tax bi Euh, defal hommage alxaaji Abdoulaye loolu euh, Cheikh Maham Cheikh Maki dana ci ñëw loolu li ko waral mooy mooy xali mooy taawi Mawlana Cheikh Ibrahim radiallahu taala anhu mi nga xam ne moo ko tànnaloon dëkk bële ca Paymaar mu sanc ko te jumaa jooju ca Paymaar moom la ñu war a def moom la ñu war a tabaxaat di ko di ko liggéey ba mu toll fii xaaji Abdoulaye moom noonu nga xam ne moom jaar na ak sëñ bi fu nekk moo taxoon mu defal ko hommage cheikh Mouhamadul Haadi nag moom bàyyi moo jàpp ci loxoom jàpp ci loxo cheikh Mouhamadul Haadi ne ko kii mooy sa mag boole naa la ak moom mu nekk néegam mu yar ko moo ko daan rootali ndox mu muy sangoo ànd ak moom mu nekk doomam boo xam ne moo ko yar magam la waaye doomam la loolu moo taxal mu defoon mu ñu pare ne ko bés bi ñooñu ñëpp nag ñu ngi teew fii ñu ngi ñaan yàlla euh, barke kóllëre yooyu ak jaam yi nga xam ne jóge nañ fu fasandikoo ñëw ci lenn ci fédération bi ak mbooleem taalibe yi nga xam ne seen bi moo leen di fekkale di leen guddeeg bëccëg di leen defal ay programme di sonn ci ñoom ñoom tamit ñu ne yelloo na ñu jël benn bés boo xam ne dañuy ñëw ziyaare si ko ñu ñu dog àll tingo yi ñëw tey fii ci Medinatu Mawlana Cheikh Ibrahim di ko ziyaare si loolu yëpp di kóllëre ak jokk mbokk ak beesalaat kóllëre ak fàttaliku ay jàngati Mawlana Cheikh Ibrahim ak ñaan ak sàkku ñaan ku nangu ci jamono ju jafe kon asamaan si xiin na ñu ngi ñu ngi yaakaar yàlla taw meññeetam gëm yàlla meññetam wërsëg meññetam xéewal ci jamono joo xam ne ñu bëri gëlëm nañ ba ku nekk ñu bëri ñu ngi seet seen bopp xàmmeetuñ seen bopp waaye référence yooyu nga xam ne moom lañ doon waxtaanee la defaroon démb rek mooy defar tey kon jàngataat bés yi mel nii li tax yàlla bëri lu mu koy wax ci alquran waskur fi kitaabi Muusa waskur fi kitaabi Isa Ismaayil waskur waskur waskur yooyu yëpp ay fàttali la yoo xam ne dañoo bëgg jaam bi di fàttaliku ndax li muy fàttaliku mooy lam jaayante woon ak yàlla lu tax mu tudd fàttaliku mooy alquran zikru sax la tudd ñëpp xam nañu alquran zikru la tudd lu ñuy fàttaliku lu amul kenn du ko fàttaliku waaye lu am ba pare nag la nit di fàttaliku kon nag doomi aadama bi nga xam ne yàlla jaayante woon ak moom ci alamu zar ci alam aad alastu bi rabbikum jaayante ak moom ne ko alastu bi rabbikum mu ne balee yaay suñ borom jaayante ak yàlla bu jaayante boobu nag nga xam ne moom lañ jaayante ak yàlla ci alamu alamu arwaax bi nga xamee ne ñëw nañ fii moom ñu bëri fàtte nañ ko waaye ñi am tawféex ñoom ñoo ko fàttaliku moo tax yàlla di leen fàttale toujours kon nag ñi ne liggéey sëriñ si ak waliw yeeg duaat yeeg ñiy fàttaliku ñi ñuy waare yépp seen seen mission mooy fàttali rek jaayante buñ buñ jaayante woon ak yàlla ndax kenn bindul njub waaye dañuy fàttali kon nag fàttaliku lu baax dana jëriñ ñu ngi ñaan yàlla yàlla buñ fàtte yàlla mukk bàyyi nag moom nee na moom waxoon na ne te tazakkartu laa ani nasiitu muhammadan mu ne moom dafay fàttaliku yonentu waaye du ne daf ko fàtte de daf koy fàttaliku waaye fàttewu ko benn yoon ñun nag ñu ngi jàng dars boobu fa mosuñoo fàttee waxtu nekk ñu ngi fàttaliku ñu ngi ñaan yàlla yàlla nañ fi jëlee ñaan ko nangu ñi nga xam ne ñoo fi teew yépp kenn ku ci nekk yàlla na yëg ne am na dolleeku ci zaahir ak baatin ba ñu fi siwaatee beneen yoon déwén kenn ku nekk yëg ne jot na càkkuteefam di gërëm ñi nga xam ne ñoo ñoo fi teew teewoo Cheikh Hadj Abdoulaye mi nga xam ne mooy def conférence bi nii la koy defee fu nekk ci àddina bi di ci taxaw pay bi yëpp euh, di tasaare xam-xam ñu ngi koy gërëm ci conférence bi di gërëm Baye yi moom tamit ñi nga xam ne mu ngi nii toog Cheikh Baye Mouhamadou yi nag moom kenn du leen wax ci moom ndax liggéeyam gis ngeen ko tànki baayam muy Mawlana Cheikh Mouhamadou Hadi moom lay dox bu dégg bëccëg suba ngoon ànd naag délégation bu bu bu bu délégation bu mag a mag mag ñëw te lii nii yàgg na cee ñëw def ci daan ñëw sax te kenn daanu ko yëgal kon nag rawatina nag bi nga xamee ne tey bés bi amul sikki ne bési Cheikh Mouhamadul Haadi la euh, ñu ngi koy gërëm di gërëm taxawaay yi nga xam ne mu ngi koy def fu nekk ci àddina bi ak Europe ak euh, Afrique fépp ak ci dëkk àll yi bàyyiwul benn dëkk di di aw ci tànk yi nga xam ne noonu la bàyyam doon def demoon nañ ci benn dëkk boo xam ne mi ngi ci côté Diamniadio Euh, dëkk boo xam ne soo fay dem dañ lay enu dañ lay jàppoo nga doo a mën a jàll ñu dem ñu ne ñu moom Mamadou Hadi daf fi daan ñëw at bu nekk te ñun bañ fay dem sax am nañ problème lu ñuy def ba ba jàll fa ñu ne ñu fii at bu jot Cheikh Mamadou Hadi daf fi daan ñëw ñu xam ne dëgg dëgg loolu mooy mooy itte loolu mooy mooy loolu mooy jàngale naa Cheikh Ibrahima tànk yooyu nag moom la Cheikh Baye mii di dox ba nga xam ne kenn képp ku nekk fii rek seede nga ne tànk yooyu lay dox kon nag su duutoon dara lu ñii fi dajee rek ak kóllëre yi tax waral bés bi ak bés bi ci boppam ak lim tombeel yépp rek loolu rek doy na càkkutéef doy na ne ñi ko fekkee yàlla bëgg na leen tànn na leen moo tax ñu mën ko fekkee ñuy gërëm Cheikh Mouhamadul Makki ci organisation bi ñu gërëm ñëpp di ñaan yàlla bu sëñ bi ñëwee ñu jox si garkat yi wala xam nga nu ñu koy organiser bu sëñ bi ñëwee ñu julli timis ba pare <laughs> ñu daal di continuer programme bi salaamaaleykum wa rahmatullahi Euh, sëriñ bi délégation yu bëri teew nañ fi ñi nga xam ne individu yi say mbokk say doom say xarit ki ci jiitu muy cheikh Baye ibnu cheikh Ahmed Tijani al Khalifa mu nga xam ne muy Baye cheikh moo nekk nii toog nga xam ne ñëw na ñun ñii sax dañ ko fee fekk mu ñëw toog ca gannaaw dañ koo ñaan ne ko kaay toog fii mu ne bëggut ñëw toog fii te fekk yow ñëwoo. kon mu ngi nii toog kon sa ñëw na fekk la si way juram Cheikh Baye ibnu Cheikh Mouhamadul Haadi nga xam ne mooy ambassadeur de la jeunesse mu ngi nii toog nga xam ne mu ngi liggéey liggéey bu rëy ci àddina bi ci ay guddi ak ay bëccëg comme ni ko baayam doon defee comme ni ko maamam doon defee mu ngi ànd ak rakkam Cheikh Tijani ibnu Cheikh Mouhamadul Haadi waaye tamit mu ngi ànd ak Cheikh ba Cheikh ah, Baye Alhaaji doom doomi sëtu xaaji ma Zeynab ak Cheikh Mouhamadul Makki yi Cheikh Mouhamadul Haadi nga xam ne rakkam la mu ngi ànd ak ñoom euh, teew na fi itamit euh, ki nga xam ne mooy Cheikh Baye Nourou di doom doomi Cheikh Mouhamad Nourou ibnu Cheikh Ibrahim moom i tamit teew na fi ànd ak rakkam Cheikh Mouhamadul Lamine ibnu Cheikh Mouhamad Nadir teew na fi moom itamit mu ngi ci jotaay bi sëriñ bi شيخ Omar نيس ابن الشيخ محمد الشيخ عثمان فاتي نيس mu عبد الله نيس مغي ني توك toog moom تيونا سي جتاي بي محمد نذير نيان Nazir Niang سا سوبي سا soppe سا ولر سا wëlëre كو لو خامن كيب كو خامن رك ياغي xam ne rek yaa ngi wax ci Cheikh Mouhamadul Makki rek Cheikh Mouhamed Nazir Niang bëgg na la moo xam mu xam la moo xam ndax kon bëggut la yaw waya bëggut la kim bëgg waaye ki nga xam ne yow moom nga bëgg kooku la bëgg te muy Cheikh Mouhamadul Makki lañ bëgg. Euh, Cheikh Moustapha ibnu Cheikh Ahmad Daam moom tamit mu ngi teew mu ngi nii toog monsieur le maire nga xam ne moom itamit mu ngi nii toog monsieur le maire Ndiédiène euh, mu ngi nii toog ànd ak ñun nga xam ne paymaar gi sëriñ bi nekk nga xam ne mu ngi ko sanc en 1986 la ko alxaaji Abdoulaye Niass yebaloon foofu moom mii tey moo ilif gox boobu te ñaan ak sëriñ bi teggeeku ci moom moo tax tamit moom tey mu ñëw muy Abdou Aziz Mbodj docteur Abdou Aziz Mbodj mu ngi nii toog ànd ak ñun nga xam ne ñaan ak sëriñ bi keroog bi mu ko tàllalee mu tefli ko mu raay ko ci xarxaramam yàlla tànn ko moom itamit ñu ngi nii mu ngi nii toog moo yilif Paymar yilif mboolem li wër Njéejeen yal na yàlla defal la jàmm defal la sutura may la tawfiq ba nga xamee ne li nga ci bëgg itamit da ci mën a am suñ mbokk itamit nga xamne muy bok ci fédération ansaruddin bu Gàmbi nga xamne lépp luy xitmal baye luñu wara dajale ci loxom la nek momi tamit mu ngi ñiit ñëw ànd ñom fekk la si ñoom alxaaji ba fekk la ci ñom mustafa Lo mu ngi ni tew ànd ak Cheikh Ibrahim Lo yalla yàlla fay len yiw zaida ruqiya domi Cheikh Ahmed tijani Al Khalifa momi tamit tew na fi waaye Zeyda Mariam ibnu Cheikh Ibrahim Niass mu ngi doomi Cheikh Ibrahim Niass mu ngi nii teew moom itamit Mami Niass doomi Cheikh Mouhamadul Makhtar moom tamit mu ngi teew waaye itamit sa waa kër Zeyda Aji moom itamit mu ngi teew Zeyda Umu Ani moom itamit mu ngi teew Zeyda Bayda Niass mu ngi teew waaye Zeyda Subayda Niass mu ngi mu ngi teew kon daal sëñ bi mbokk yëpp fekkele si ñu ci oote bi nga xam ne oote nañ la nga waxoon nag keroog rek mooy ne yéen jëf leen lay mottali moo yàlla tiitoon nañ lool nag ci nga xamee ne biñ toxalee bés bi te information bi jàllut waaye alhamdulilah rabbil alamin jëf ak wëllu yàlla su fekkee ne ki ngay jëfal wëllu yàlla la waaye itamit su fekkee ne ki ngay yow miy def yàlla rek tax ngay def amul sikki ne yàlla moo lay rempliral lépp lu nga soxla te loolu moo taxoon tamit ñu def ko euh, teew na fi itamit suñu bàyyi euh, Cheikh Ahmed Sambu nga xam ne kenn la ci Papa nga xam ne euh, kenn la ci Papa waaye kenn la tamit ci sëriñ bi sëriñ bi tànn ko tey ñu bokk ñu boole fédération bi tànn ko ñu bokk ci ñi nga xam ne ñoom lañ euh, dara jaale bés bi indi na fi addiyaam lu duuf loo xam ne wax dëgg yàlla ak jamono nu muy naqay métti métti waaye nag bàyyi dafa waxoon ne lu jamono métti métti am na ñoo xam ne duñu yëg métti métti boobu yan nga ci bokk suñu ba suñu bàyyi tamit Euh, suñu bàyyi Cheikh Tidiane Fall nga xam ne mag la su suñu yaay aji Fall moom itamit bokk na ci ñi nga xam ne ñoom lañ tuddee woon bés bi ñëw na moom i tamit ànd ak délégation bu mag wax dëgg yàlla alhamdulilah moom i tamit indi na enveloppe bu duun wax dëgg yàlla yal yàlla fay leen yiw yal yàlla barkeel njaboot gi waaye seen relation ak Cheikh Mouhamadul Makki Cheikh Ibrahima Niass yaakaar naa ne. Euh, Euh, seen relation ak Cheikh Mahamadul Mbacké Cheikh Ibrahima ñas moo waral bés bii tey ñu tànn jotee tuddee leen ko waaye biñ leen ko tuddee tamit ñëw nañ oyisi oyisi bu lew mm, naka noonu euh, bés bii tey euh, jëloon na ñaari magam yoo xam ne li ñu représenté ci moom mooy li Baye ñas présenté wu présenté wu ci moom ci moom muy kan alxaaji Abdullahi Niass al Khalifa nga xam ne lépp taraanga ju Baye war a defal doomam rek wala ju mag war a defal rakkam rek moom defal ne ko ko moom alxaaji Abdoulaye Niass mu ne nag su fekkee ne ndax jotaay bii masuñ see def carte mosuñ cee oo kenn kudul taalibe yi rek lañ ci doon taay taalibe ñoo daan dajee pour ziyaara seen sëriñ mosuñoo ne dañ ko tuddee nit waaye ren bi ñu jëlee décision bu ne nit day am day innové wu waxtu wu nekk da nga war a yokku tolloog jamono ndax Cheikh Tidiane dafa waxoon ne niru sa jamono niru sa jamono moo gën nga niru sa jamonoy baay wax dëgg yàlla bi ñu xalaatee initiative bi moom tamit mu nangu ceeg ñun nañu waaye suñuy njëkkee ndax Papa Cheikh biñ tànnee ne dañuy def dañuy tuddee gàmmu Tayba gi ay nit def ne nañ ci jiital njabootu xaaja Abdoulaye Niass ñi mag wala dëgg yàlla moom itamit mu ne moom day tànk yooyu suñ naree def ay ay ay hommage nañ jël magam Hadj Abdoulaye Niass ñu rendre ko hommage nga xam ne léppam def na ko def na ko ci moom su jëlee kàddu dina nga xam xam li El Hadj Abdoulaye Niass def ci moom. beneen bi mooy Cheikh Mahamadul Hadi Cheikh Ibrahim Niass moom itamit bokk na ci ñi jagleele guddi gi jagleele bés bi wax dëgg yàlla moom itamit muy mag yoo xam ne dimbale na ko ci waxtu mu soxlaa ndimbal waaye ànd na ak moom waxtu nga xam ne àndoo dina jëriñ waaye léppam loo xam ne def na ko rek alhamdulilahi rabbil alamin kon su kàddu yooyu ñëwee dinañ dinañ dinañ jàllale dinañ jàllale kàddu yi incha allahu kon dañuy jël kàddu gi rek jox ko président fédération ahbabu Cheikh Mahamadul Makki nga xam ne moo ëmb kuréel yëpp ci ci Europe ak ci àddi fu mboolem fu àddina bi nekk rek. mu ngi wax ne alhamdulilah salaamaaleykum wa rahmatullah xam nga xàndoo ku mat a xàndoor rek mooy jëriñ ci bépp xàndandoor xam nga su ma taxawee fii te ñu yëkkate ay micro dama ko jox xamul sikk ne xànd ku mat a xàndoor rek la kon ñu ngi wax ne sëriñ bi ñu ngi lay nuyu say soppeeng lay nuyu. say xarit a ngi lay nuyu say xam di lay nuyu say taalibe ngi lay nuyu waaye ñu la bëgg a bëgg ñu ngi lay nuyu ñu ngi wax ne ñu ngi sant yàlla bu baax ci xanam yu bari ñu ngi sant yàlla ci may gim ñu la may mënoon nañee may keneen koo demee neneen mënoon nañu lay may nga diis gànn waaye yàlla dimbali ñu may ñu la nga xoyof toyom mënoon nañu lay may sa njaboot diis waaye may gim ñu la may say njaboot fañ wàcc ba ànd ak ñun ci lépp lu taale bay def ñu ne nañ ko def ñu ñu jékki kon loolu sant yàlla la kon sëriñ bi man wax ji duma ko guddal balaa ma xoon a wax ñaari baat wala benn baat bu fekkee nga teg jël sa machine bàq tooy nga teg ko ci bopp ruujeef daw ba ca pegg bële benn pakk fàttut machine bi war gaa xam ne xam na ku la fa jiitu jataay bii taar bi mu taaru réglé gi mu réglé ak niñ ko jaaralee ci suba ba tey xamul sikk ne ki ko lal mooy oustaz Mouhamed Keba duñ ko fàtte ba illaa yow mi diin duñ ko mës a fàtte ndax oustaz dafa doon koo xam ne ku mu gis rek bëgg na nga jëriñu ku mu gis bëgg na nga jëriñu mooy lan mooy xam ngeen bàyyi bu fekkoon ne nee na dafa gis lu ëpp lu gën ñu liggéeyal ko konoon ma santaane ko waaye lu gën ñu liggéeyal bàyyi moom kenn du ko teg bët te ustaas du gune du mag képp koo xam ne ustaas xam na rek mi ngay fexe noonu liggéeyalee bàyyi ci buntab Cheikh Mouhamadul Makki Ibrahim te loolu mooy njëriñ tey fii bu doon fu ñu may taxaw di wax ne bàyyi noonu ne inna la si na xaddamoo ni naa loolu lool duñ ci dem ñun fii duñ fi xiila duñ fi xaala waaye ñi ngi wax ci turu président Omar Boy mi nga xam ne moo jiite fédération bii nga xam ne ñu ngi ko tuddee ahbaabu Cheikh Mouhamadoul Macky bi nga xam ne moom lañ def ci groupe WhatsApp bi ñu ngi wax ci turam waaye ñu ngi wax ci turu mbooleem magi taalibe yi waaye ñu ngi wax ci turu mbooleem gune gune yi ñu ngiy wax ci turu mbooleem mbooloo mi ñu ngi lay wax ne gërëm nañ la sant nañ la gërëm nañ sa njaboot sant nañ leen ñu ngi wax ne yàlla mi mi ñu la may bu ñu la mayutoo nuñ dem kii dégg naa mu wax ci affaire yi tànn waaye ñun dafa am góor goo xam ne dama ne góor gi dafa xànd ak ko xàndoog bàyyi 1936 ba 1955 kooka nelaw mu tourné ànd ak bàyyi moom góor googale 1935 ba 75 yi bàyyi làqute ne dàng mu tourné ne fay jàpp yedd def tawasulu ne bàyyi ay tànneef yi kese nga xam tànnal ma si sa tànneef yi tourné jàkkaarleeg njabootam ne leen li ma ñaan bàyyi na buñ ma koy tànnal ni ni ngi ma koy xamee laa bëgg ngeen xamee ko mooy nii laay demee nii laay demee nii laay demee kere ba nga xamee ne Baye may na ko Cheikh Mouhamadul Macky la ko may kere bi mu ne tëll ak mandarga yam joxe woon rongoñ yi dafa wàcc te booba góor gi yaakaar na ne mën na téeméeri loolu li ma ciy jublu mooy ñu xam ne ñun kii ñu xam du suñ ngóor du suñ xam-xam du suñ fatlu du suñ xarañ yàlla ñu ko dimbalee kon duñ guddal ndax heure bi xamun fi lu ñuy wax lu mooy taalibe yi ñoo ñu wax loo waaye taalibe yi gërëm nañ sant nañ lépp liñ lay jox nag muy lu tuutee tuutee tuuti te bëgg lu bari nag lu tuuti lañ fi indi bëgg lu bari lu tuuti loolu mu ngi mel ni e, suñ mbokki géwél yi buñ jëlee tey ñetti mburu dem ci géer boo xam ne foog nañ ne xam na dara buñ ko sukkee xam ne njëg ñetti mburu taxul leen a dikk fañ dikk boole see ku leen xëppale pour mu nàddal leen ci lam leen xëppalee kon xamul sikk ne lépp luñ fa dajale bu nee bëgg nañu dajale lu ko fépp loolu lu ñu koy mooy mooy xaalis bi sëriñ bi ñu ngi lay wax ne lii def nañ ko muy apport ab bunti bépp xéewal commerçant baa ngi mbay maa ngi fi njàng maa fi njàngale maa ngi fi sëriñ bi lii def nañ ko muy apporam lu tax ma ne apporam mooy gis nga banque nañuy wax soxla yi bu ñu waxee soxla yi rek ci fu ñu ko war a waxee rek kooka moom dana ko faj nam ko war a fajee ñun suñu yoon ci ay yàlla ak yónneen teg sàmbati ñun yow lañu xam yow lañ xam yow lañ gis yow lañ xóolu yow lañ jox suñu bopp bëgg na nga yàgg fi lool lool lool gis nga banque kii ngeen gis li tax ma ne soxla yi nañ koy wax. banque tey boo bindoon sa demande ne ko naa bëgg nga lebal ma ne tekk du la lebal dara lu tax waxu ko li ngay leb foo koy def wala lan mooy sa soxla danga naan ko crédit campagne mbaa crédit commerce mbaa crédit embauche mu man caa su ko xam say bëgg-bëgg moo tax yàlla xam na li ma bëgg déedéet yàllaa la ko gën a xam moo xam lu may maye moo mën a maye te xam nañ ñim xam waaye fa ne addaxoon yi istajib lakum ñaan leen ma may leen kon suñu soxla yaa Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Assalamu'alaikum. rahim asalaamaaleykum maa leen ñu nuyu yeen mbooloo mi yépp di ci nuyu ku nekk turam ak santam du nuyu suñu kilifa yi fi tok waye du nuyu ki nga xamne mo waral bi du suñu serigne du suñu papa du suñu lepp di l'ambassadeur de la fayda tidiania cheikh mamadou mak ibrahima niass dañu commencé di la ñaanal yal na guddal sa fan na sa leer tax ñu sa barke inshallah may commencé rek Euh, ñu bëgg a waxtaan ci parcours Cheikh Mouhamadou Macky Ibrahima Niass ana fan la jaar ba yegg si fi mu yegg si tey ana yan ban yoon la jaar pour yegg si fii tey foog naa waxtaan ci jëm jooju du doon lu yomb moo tax may commencé ci fii il ne faut pas afficher les bons cœurs en méprisant les heureuses il faut les remercier leur sourire leur heureux encouragement mais c'est le cas de serrer d'un clan

mu doon ki nga xam ne nii sang la ci biir sang yi doon kuy jubal si kuy jubal waaye doon ki nga xam ne ni bàyyi na ci yoonu yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam amul sikk sàkk na bu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jàkkaarloo nag moom dina ko tàppal garaat moom Mawlana Cheikh Ibrahima Niass ba moom Baye Niass moom moo ngi wax ne bëgg gi mu bëgg yonentu bi sallallahu alayhi wa amul sikk bu ko gisoon tey jii amul lu muy yokk wala lu muy wàññi ci mbëggeel googu ndaxte bëgg na ko rek bëgg na ko kooku mooy Baye Mawlana Cheikh mooy Baye Cheikh Mamadou Macky Ibrahima Niass waaye ani kan mooy yaayam Seyda Ami Niang mooy yaayam ki nga xam ne ni soxna la woon ci biir soxna yi moom mi nga xam ne nii moo yore woon lépp bàyyi ci lekkam ba bàyyi ñes war mas un jour jot na mu taj soxna yëpp na Seyda Ami ñan mii laa wóolu sama biir bi loolu nag firnde wutoon na ñeneen ñu mënuñoon waaye dafa fekkoon na amoon na lu mu gis soxna su noonu ba tax na moom bàyyi ñes moo ngi mës a wax ne Ami Ñang dooma bàyyi mukk ma xiif mbax sa euh, wan vend ajuma jot na fii mu julli juma ba pare président Senghor woo ko soxla ko yónnee ko hélicoptère mu jël fii si aérodrome bu ko woon dem Dakar ba taalibe yi ñibbee Seyda Ami Ñang ne andi Maolana Cheikh Ibrahima ñu ne ko dem na Dakar takk añ mën a Dakar maa ngi nii fekk booba jamono jooju tu tolloon yoon yombul toon paas yombul waaye jot aussi yombuloon waaye takk na añ ba dem ba kaw dakaar ci kër molona Cheikh Ibrahima djeppal ba mu yeggee ñu tijjul ko neeg ba mu defar neeg ba tok ubi añ bi du ëpp añ baangi tang tàng Dakar ba Kaolack nga xam lolu loolu la ba bay diggante Kaolack ba Dakar nga xam lolu loolu la ba bay ñes déwee xet gu neex gi nga xam ni mom la loon yëg ta bayiwul loon ko ba mi dem mu ne amna kuma jitu sama neeg bi de ba mu ñëwee gis Seyda Ami Ñang ngi tok di ëpp añ bi pour bu ñëwee lekk mu nako ko Ami Ñang xamoon naa ne dooma bàyyi kon alhamdulilah bala yàlla joxe kon alhamdulilah bala yàlla joxe baay ji gën sang bi gën ci sang yi kuy jubal si ñuy jubal waaye jooju tànnal na la ndey ji ci ndey yi alhamdulilah kon nag kon nag euh, Cheikh Mahamadou Mbacké moomu doom la ci doomu Mawlana Cheikh Ibrahima Niass bi nga xam ne nii bokk na si njëkk a alxuraan te man gi mu ko manee ba mu doon ndaw ba tey jii nii noonu la ko manee benn baat bu ko ci moom Cheikh Mamadou Macky Ibrahima Niass moom mooy boroom licence yi am na licence foofu ci Égypte waaye am licence fii aussi fii ci daara ji mu ba mu demee Égypte mu ànd ak seex Mamour ak imam Assane Cissé Baye Niass na ko demal Macky Ibrahima boo ñëwee ma jàngal la ba mu demee jàng ji Égypte en dem ñëw en 1977 mu doon doomu Baye Niass bi nga xam ne nii moo njëkk a intégré la fonction publique ba mu ñëwee ñu orienté ko Louga mu préféré na fii sama dëkk lay toog di Medina Baye servir sama dëkk mu toog fi 10 yi nga xam ne nii génnul ci dëkk bi 10 ans yooyu moo ngi doon professeur si lycée de co si lycée.

35 yi nga xam ne nii jàmm rek nga sekk ak ñoom kon nag ànd ci yàlla rek moo wóor kon nag tey jii euh, Cheikh Mamadou Macky moomu bu ko jeunesse bi jëlee na ko moom la jeunesse bi def idole moom la jeunesse bi def référence am na qualité yu ñu gis si moom parce que mënoon na doon doomu Mawlana Cheikh Ibrahima Niass rek toog ne damay xaar addiya taaliba yi ba lu ma am jël waaye ba mu doonee doomu Mawlana Cheikh Ibrahima Niass takk na ndigam di daanoo ko jóg malgré les difficultés de la vie moo ngi dem ak a ñëw di dem ak a ñëw ba yàlla may ko lu mu ko may tey donc mu nga xam ne ni moom lay bàyyiloo xel jeunesse bi mooy na ngeen gëm yàlla te ngëm-ngëm boobu moom la laan waayam ja xaritam ba du wax Oustaz Keba Lo naan waay ju gëm yàlla doom yàlla xaj na yàlla nee na xajuma si asamaan waa xaj naa ci xolu xol euh, doomu aadama bu gëm yàlla nee na ane man doomu aadama mooy ko gën a gëm yàlla mooy gom doomu aadama bu gëm yàlla mooy arifulaay mooy ki nga xam ne ni day sellal mooy ki nga xam ne ni day ubbi xolam bi day ci boole ñëpp kon nag ànd boobu dëgg la ba tax na li nga laan partage jeune bi rek moom la laan nit ñi di part moom la laan partage engagé kun nag fii nii lay tëjee ani ndaw ñi lan leen war a mën a jàng ci yow parce que sa bàyyi de moom di Mawlana Cheikh Ibrahima Niass favoriser woon ndaw ndaw ba xamoon na importance bi nga xam ne nii ndaw war na ko mën a am ci dëkkam ba moo ngi wax ne une jeunesse sans culture sans ambition élevée n'est qu'un arbre euh, stérile nee na jeunesse bu amul culture amul ambition moom ak garab bi nga xam ne nii mënul joxe garab mënul joxe lu ñu lekk jeunesse boobu ñoo yam kon nag ba mu waxee ne dëkk bi ci ndaw ñi leen ko war a bàyyi ràññee ne ndaw yi nga xam ne nii moom war a bàyyi ci dëkk bi

Rahman mais tay ji Cheikh Mahamoudou Macky Ibrahima Niass li lay ñaanal rek moy gudd fan ak wér gu parce que da nga wara dund rek inshallah allah da nga wara fekke inshallah allah Cheikh Mahamoudou Macky Ibrahima Niass lepp li nga xam ni dom mo ko wara don ci Baye Niass don nga ko yow domam don nga ko ci niro way don nga ko ci xam-xam don nga ko ci laab biir nga ko ci bëgg dom adama kon yal na yàlla guddal sa fan yal na la fi yalla bàyyi ya nga fekke suñu teranga inshallah allah lo loo ci ñun yal ñu yalla may lo xam ni dinañ la ko fay inshallah allah Cheikh Mahamoudou Macky kon alhamdulilah su ma waxee njuumte maa ngi jéglu bare bare alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillah ah, mawlaaya cheikh Mouhamadul Makki nu cheikh Ibrahim Niass bismi cheikh ibrahim cheikh mohamadul hadi wa jamii usrati cheikh mohamadul hadi ci turam laay waxe di la nuyu bu baax nee na di nuyu sa njaboot gu tedd gi muy say doom ak say doomi mbokk ak mbooleem ñu ñëw teew la ci ci bés bu tedd bii nga xam ne bés la boo xam ne bés la ci bésu yàlla yi mu ne nee na bés la boo xam ne mu ngi am yaqiin ne mën naa ramm mbooleem ku teew ci bés bi tey ëllëg yowmal xiyaam mu ngi teew ànd ak mbooleem njabootu Cheikh Mouhamadul Hadi waaye lu limu ci ay muqaddamam waaye lu limuy tamit ci taalibe mu ngi ànd euh, magam xalifaam te ci délégation la bokk mooy cheikh ibrahim ibnul xalifa cheikh ahmad tidiane yi ibrahim Niass mu ngi ànd ak rakkam cheikh ahmad tidiane ibnu cheikh mouhamadul haadi bàyyi ko ba Dakar te bés bi indi ko waaye mu ngi ànd ak rakkam cheikh Mouhamadul Makki cheikh Mouhamadul Hadi waaye mu ngi ànd ak xaritam ak doomi ndeyam cheikh Baye Alhaaj nu cheikh Ibrahim nu cheikh Alhaaj Zeynab waaye mu ngi ànd ak itam Mouhamadou Ba nga xam ne ku xamoon cheikh Mouhamadul Hadi xam ko ak ay muqaddam yoo xam ne. buñ ci tuddee Cheikh Baye Alhaji Touré mun nañ ci tudd Oustaz Ibrahim Lo ak mbooleem muqaddam yoo xam ne ñëw nañ fekkele si ko ak njaboot gi nga xam ne ñu ngi toog ci biir mbaar mi nee na mu ngi lay ndokkeel bu baax nee na bés bii ñu tudd ci ñu lay ziyaare tudd ci sa mbokk sa xarit sa mag sa àndandoor waaye sa seexandoor muy cheikh Mouhamadul Hadi nga xam ne cofeel gu doxoon ci seen diggante ñaar àddina yépp xam na ko lu bari bëri Mamadou Ba mii dafa may nettali ndax daanul tàqalikoo ak Serigne Adi Serigne Adi bu doon wax di la tudd ak Serigne Adi nim la fonkee woon ak Serigne Adi nim la bëggee woon njabooti baay gi yëpp ay xaritam lañu woon waaye ñoom xam na ñëpp xam nañ ni Cheikh Mouhamadul Makki ak Cheikh Mouhamadul Hadi ay xarit lañ bu baax ndax tuddee nga ko doom muy Cheikh Mouhamadul Hadi mii toog sawet waaye moom it tuddee na la doom muy cheikh Mouhamadul Makki mii toog sa ginnaaw loolu bu amee lu muy tegtal dafay tegtal ne wëllëre la woon xarit la woon waaye mbokk la woon bu dëgër nee na mu ngi ñaan ci sa mbaax ci sa maqaama bu kawe taalibe yi nga ñaanal leen waaye mu ngi seede ne taalibe yi bëgg nañ la mbëggeel goo xam ne dara warulu ko dañoo yaakaar ci yow Baye Niass man mii am na mag mu ma wax ne limal ma ñetti doomi bàyyi ne boo musuta jox bàyyi ñes loxo boo joxee diw ak diw ak diw loxo mu ngi mel ni jox nga bàyyi loxo te ñu noonu mu doon wax ci yow nga bokk ci yow mi la bokk waxul ci baatin waaye loxo ku yàgg a nuyu bàyyi nee na bu la nuyoo xam na ne ku mii noonu loxo bàyyi bi bu la nuyoo mu ngi mel ni nuyu na bàyyi ñes waaye tamit jëmm joo xam ne buñ ko xoolee tey mu ngi mel ni ñu jàkkaarloog Maolana Cheikh Ibrahim deug deug jëm yoyu sa jëm ji ci la bok sa togaay bi tay ku la xool deug dëgg mu ngi lay xol waye Baay Ñas lay gis ci sa togaay bi waye sa kaddu tamit fo addo yow mi yaay wax waye xam na ni Baay Ñas moy wax ci yow ndax bo waxe rek Baay Ñas la ñuy dégg sa mbax ndokk ba nga sa maxaama wala sa martaba bam bam ba ndax sa mbax ak sa oyof neena jege bi nga jege taalibe yi bëgg bi nga bëgg maulana Cheikh Ibrahim sa sëriñ moo waral loolu waaye nee na mu ngi lay gërëm yi tamit ci turu mboolem njabootu sëriñ Hady ay yaayam ak i tàntam mboolem muqaddam ndax taxawaay bi nga am ci moom démb moom nga am ci moom ba tey ji wàccagoo ndax yaa ngi koy ñaax yaa ngi koy ñaanal foo tollu yaa ngi wax jëmale ci moom wax yu baax waaye loo ko war a digal yaa ngi koy oo di ko koy digal ak mboolemi rakkam loolu mu ngi la ciy gërëm ndax tey ba gee nga xam ne da ngay ñëw toog ci wetam comme ni fa Maulana Cheikh Mouhamadul Hadi doon toogee toog waxtaan ak taalibe yi toog ka ibnan li Maulana Cheikh Ibrahim taalibe yi xool nampat ci yow baay loolu dëgg-dëgg nee na mu la ciy gërëm waaye sa jege bi nga jege taalibe yi sa suufe bi nga suufee te yëkkatiku lool ndax gars yi dañuy wax ne dañuy wax ne man tawaadaa lillahi rafaahu llahu waaye léeg-léeg buñ koy wax dañuy fàtte lillahi ga suufe yomb na lool waaye lillaahi ga moo jafe suufe ngir yàlla te yow da ngaa suufe ngir yàlla moo tax yëkkatiku nga ba ci kaw mu ngi lay ñaanal bés bi ñaan yàlla nañ la ko yàgg defal bu amee lu ñu lay ñaanal ñu ngi lay ñaanal maqaama sa maqaama gën a kawe ndax wax naa la ca tey ba ne am na benn taalibe muy Moussa Diouf ca Espagne la géntee ne tey jii bàyyi ñes bésu sàngam bàyyi ñes war naa gën a ji Espagne te bi mu gisee bàyyi ñes ci gént gi bés bi yow yaa ñëw Espagne te lim gisoon bàyyi na sol yére yim gisoon ak couleur ba ak kaala ga solo woon noonu nga solo moo tax amul sikk ne bi ñu waxee ne boo waxee ñu dégg Mawlana Cheikh Ibrahim boo doxee ñu dégg Mawlana Cheikh Ibrahim soo toogee bu ñu jàkkaarloo yow dañuy dañuy jajeeg laa Mawlana Cheikh Ibrahim ñu ngi lay ñaanal bu baax yal na yàlla dëgëral sa taxawaay yal na yàlla guddal sa fan mu ngi lay won ne xam na ne baayam nga. nangu nga ne yeyit moom it doomam nga moo tax dëgg-dëgg jàpp nga ko jàpp koo xam ne yëg na ne sax ne moom nga gën a jàpp ci ay doomam kon mu ngi lay ndokkee bés nga mbokk yi sëriñ bi mu ne alhamdulilah salaamaaleykum mu ne ñun ñëpp nañu wax alhamdulilahi rabbil alamin yàlla mooy ki ñu jàppandal mbir mi ba mu sotti waaye duhut suñ góorgóorlu waaye tamit duhut suñ man man كنا دنا نكرم سن وسيلة مولانا شيخ إبراهيم أنس رضي الله تعالى عنه سن كنا يو تتقالكو هور نيونا سن نيو شيخ إبراهيم نوين شيخ أحمد تجاني وين نيونا رسول الله صلى الله عليه وسلم ndax baye du suñu wante contrat kenn loo mooy fekk na nga remplir contrat Cheikhu Tijaan ak yonentu yàlla moom sallallahu alayhi wa sallam kon nag ñu ngi wax jërëjëfee Baye Niass nañ waxaat jërëjëfee Baye Niass nañ waxaat jërëjëfee moo ñu ñu ci baay moomu moo ñu jëlee ci lëndëm waaye tamit indi ci leer. baay moo tax. ñu doon doon. li ñu doon. kenn lu may ci boppam ci ci ci yéen ci ba ñëw mu xooñu ci boppam waaye dañoo xëcc ba ñëw mu xëy jëmale ci yàlla. xam nga ne baay ni feese feesee jamono ak espace bi ak àddina yépp fekkoon ku ci boppam. su fekkoon ku mu xëccoon ci boppam. su fekkee ne bàyyi da laa xëcc ci boppam soo demee ba gisatoo ko rek da nga dee ci ngëlmaane ndax yow jëmm nga doon jëflanteet. waaye alhamdulilah li nga xam ne toujours ma loo xam ne sëriñ bi waxtu ne mu ngi koy wax. bàyyi soo ñëwee di jébbalu ci moom. bàyyi soo ñëwee ci moom. bala nga takaliko ak mom dana la wax ana ibrahim ngene ko ibrahim amut munela lu xam ngene ko yalla rek moy ki xam ko xam yalla xam nga lu ne ko xamut yalla xamo dara moo tax bi mu bëggee ñu xam lu ne dañoo boole ak yàlla suñu rëj rëjloo yi ak suñ kontaante yëpp suñu rëj rëjloo yi ak suñu kontaante yépp ci yàlla lañ koy def. ci yàlla rek lañ koy def. loolu nag ndimbalal yàlla bokk loolu nag ndimbalal yàlla moo ci bokk. mboolem mbo toppam Mawlana Cheikh Ibrahima. mboolem toppam Mawlana Cheikh Ibrahima Niass. seen xàmmeekaay ci bi mooy zikrullahi. ci addina bi mooy zikrullahi mooy tudd yàlla. ma nettali. toujours sëriñ bi nettali. suñ sëriñ. suñ sëriñ. man Mahmoud doomi doomi Rabbani. ne baayam ñu jàngal. nga xam ne baayam moo leen jàngal alxuraan. man ak Mamoun. moom sëriñ bi ak Cheikh Mouhamadul Mamoun. xaaj yëpp. xaaj kaw bi yëpp. jàngal nañu ko te gisuñ fuñ ko bindee. jàngal na leen ko bañ mokkal ko te gisuñ fuñ ko bindee. muy wax rek ñu wax topp ci kawam. muy wax rek moom Mamoun Mahmoud moomu ñuy topp ci kawam. suñ xëyee fajar bala bala bala ñu bala ñoo tëdd benn xisib jeex. suñ xëyee bala ñoo tëdd benn xisib jeex. suñ ko defee juróom-ñaari fan. suñ ko defee ñaari fan. réviser li li passé yëpp. ñu réviser li passé yëpp. bési al bési bu nekk. si altine bu nekk. dina am lu ñuy wax zirik. dina am lu ñuy wax zirik. examen lay doon. examen lay doon. daara ji yëpp dañuy toog. daara ji yëpp dañuy toog. moom daal di moom kenn taxaw jublu penku. kenn taxaw daal di jublu penk mu benn saar. su dalee mu daal di benn saar. benn benn benn xisib. wala benn xisib wala benn aaya. wala benn aaya. ngay dem ba mu ne la doy na. mu ne feneen. suñ paree mu mu daal di cuqaat feneen. noonu lañ def ba ñoom ñu mokkal fekk boobu. moom ak Cheikh Mouhamadou Mamoun yal yàlla yokk leeram yaa rabbi. ak imam hasan ya na yàlla yokk leeram ay nit yo xamne ne kenn nit la yoon. ñetti nit la yoon yoo xam dañuy bànneexoo tur rek waaye kenn nit la woon. maak Cheikh Mamoun benn àlluwa lañ ma fa am. ba biñ jàng ba bi ñuy tere Cheikh Mouhamadul Makki mii ak lañ ma sa bokk ba su téye. su ba sonn ba ca des ka ca des téye. demee ba nga xam ne ñu ngi pour ñu jàng lu bëri. suñ demee ba nga xamee ñu ngi accéléré ba war jàng lu bëri yàlla dafa defoon càmmooy lay bindee. moom Cheikh Mahamadul Mamoun yàlla daf ko defoon muy bindee càmmooy. muy bindee ndeyjoor. moom Cheikh Mahamadul Makki di bindee ndeyjoor. bi naar bi nattoo. bi leen naar bi nattoo. yaa gën a rafet bind. mu ne ko yow Cheikh Mahamadul Makki yaa gën a rafet bind Cheikh Mahamadul Mamoun. te li ñuy jàng. te li ñuy jàng. xajatut ci benn alliwa. xajatut tamit ci benn alliwa. te bëgguñ ñu tàggaloo. te bëgguñ ñoom ñu ñaar ñu tàqalikoo. dañuy raxas alliwa yi. dañuy raxas alliwa yi. mu jox ko. muy bind. mu bind moom sëriñ bi. ba mu fees ñaari ñaari boor yëpp ba mu fees. ba ñu jox sëñ Maamoun. ñu jox sëñ Maamoun. muy jàngale. moom it muy jàngale. may bind moom may bind bi ci des. moom muy bind ba ca des. su tari jotee su tari jotee nag. mu daal di oo mu daal di leen oo. comme danay am lu ñetti waxtu yoo xam ne may bind. moom Serigne Cheikh Mouhamadoul Macky danay am ñetti waxtu yoo xam ne ci bind rek la koy def. suñuy déglu. suy déglu. mu gën mu gën koo mokkal moom Cheikh Maamoun. naar bi dóor na. naar bi daal ko dóor. boole ko mu boole koog Cheikh Ibrahim. ne ko man ak Mamoun mii ñoo bokk Aliwa. waaye li ñuy jàng yëpp man maa koy bind. ndax li ñuy Makki maa koy bind. bi njëkk a pare ma jox ko muy jàng. bu bind mi njëkk a pare ma jox ko Serigne Mamoun mu jàng. bi ci topp ñu bokk ñun ñaar bi ci ko bokk ñun ñaar di ko jàng. lu tax su ma njëkkee mokkal nag al lu tax nag su ma një Mamoun su ma njëkkee mokkal nag naar bi di ma dóor. bàyyi oo ñu oo leen. bàyyi oo leen. fekk moom Mahmoud la woon. fekk moom moomun Mahmoud la woon. mu daal rabbaani ànd ca mooy seen baay. rabbaani daal di ànd ak ci ci mbooloo ma te fekk ne mooy seen baay. muy muy laaj. muy laaj. muy wax muy wax. bàyyi ne ko moom itam da nga koy da ngay seet li nga xëy ci la doon bind nga may ko occasion mu jàng loolu. bàyyi daf ko wax ne ko da xool waxtu yi mu doon bind nga may ko occasion mu mën a mokkal loolu mu mën koo jàng. nga dool dee leen boole di leen déglu ñoom ñaar. rabbaani ne ko ndax mën naa cee dugg. rabbaani ne ko ndax mën naa cee dugg. bàyyi ne ko waaw bàyyi ko waaw dugg ci. mu ne ko jox ma leen ñoom ñaar ñi ma def ci ñoom alxuraan te duñ ko bind. mu ne ko yow Cheikh Ibrahim jox ma sëriñ ma Cheikh Mahamadul Makki ak Cheikh Mahamadul Mamoun ma def ci ñoom alxuraan te fekk da duñ ko bind. bàyyi na ñoom dégg nañ dégg ngeen. bàyyi wax leen ñoom doomam yi ne leen ndax dégg ngeen. ñu ne ko ah kay dégg nañ. mu ne ndax nangu ngeen. ñu ne ko ah kay nangu nañ. ca suba sa lañ leen boole moom ak Cheikh Mahamadul Mamoun yóbbu leen gànnaar. dañuy noonu def. noonu lañ def. moom moom sëlma xala. moom sëlma xala moom rabbaani. day wax rek ñuy wax di topp ci kawam muy wax ñuy topp ci kawam. bu matee juróomi yoon. bu matee juróomi yoon. mu jiital ñu noppi. mu jiital leen ñu noppi. su fekkee ne suñ juumee mu gàgganti. suñ juumee mu gàgganti leen. buñ demee ba tusubaar ba añ ba pare. buñ demee ba tusubaar ba añ ba pare. mu tàggale ñu kenn ku ne mu déglu la li li nga yow kenn. mu te mu daal di leen tàqale ñoom ñaar ku nekk mu déglu la saa liwaay bopp. bañ bañ mokkal. bañ mokkal alxuraan. si noonu lañ def moom ak rabbaani bañ mokkal alxuraan. mu indi leen nag ci bàyyi ne leen ñoom nag mokkal nañu alxuraan. ñëw boobu bañ koy ñëw. ñëw boobu nag bañ koy ñëw ñoom ñaar. 58 la. 1958 la. ci la bàyyi doon yokk jumaa ji. ci la doon yokk jumaa ji. ñu jaaree fa. ñu jaaree fa. tare alxuraan. tare alxuraan. bàyyi mboolem doomam yi. bàyyi mboolem doomam yi. ñi tare woon alxuraan. ñi woon alxuraan. dinañ taxaw ñëw gannaaw julli gaye ñëw ci buntu néegam bët bu set gannaaw julli gaye dana ñëw taxaw ci bunta baay bi jàng ñaari xisib. fajaree suñ julee fajar ñu defaat suuf ju suñ julee fajaree yi tamit ba pare ñu ñëw defaat ko. léeg-léegaan. léeg-léegaan. ñu dajee di jàng. ñu dajee di jàng. muy ñuy jàng ba ci yàgg bàyyi génnee ci néeg bi ñëw jël al xaalis di leen tasaare ku nekk mu sànni la ngir kontaan gi kontaan ci njabootam gi ca suba sa ku manqué woon kenn dootu manqué. su suba sa daal suñ ko defee ku manqué woon rek dootul manqué ngir xaalis ba. mu ne patt du joxe dara. mu keroog bàyyi ne patt nag du joxe dara bés booba. noonu la nekkee woon ak njabootam gi. biñ taree alquran. biñ yéen nag comme ni ngeen mokkalee mu ne leen yéen nag ni ngeen mokkalee alxuraan bokkut ni ngeen gisee seen morom yi alxuraan. da ngeen di beqi. da ngeen di daal di beqi. mu ne ko luy beqi. Cheikh Mamadou Mbacké ne ko lan mooy beqi. mu ne nga ni ko jàngee yow te gisoo ko. mu ne nga mooy nga bind ko ca te doo ko gis comme ni ko jàngee woon gisoo ko. bëccëg bi yëpp. bëccëg bi yëpp. xisib bi ñuy bind bi bi ñuy war a bind dañ koy ko defee ñun mokkal nañ ko waaye niñ ko ko. ñoo mokkal ko waaye niñ ko bindee xamuñ ko. su subaa ca 10 heures. ca subaa ca 10 heures. sëriñ Mamoun toog fee. sëriñ Mamoun toog fële. ma moom Cheikh Mahamadul Makki mu toog fële. muy recevoir ay ganam. muy bàyyi di recevoir ay ganam. suñ demee ba ba ba suñ demee ba bind ba pare. mu ne pare mu ne ndax pare ngeen. ñu ne ah kay pere nañ. ñu jox ko alliwa ji. mu jël seet seet seet seet. mu jël seet seet seet. su amee benn fët mu rëdd ci suuf. su amee benn fët mu rëdd ci suuf. su amee su amee beneen ñaare mu rëdd ci suuf. su amee fët bi tamit mu rëdd ci suuf. su amee beneen bu ñetteel. su amee mu sànni la alluwa ji delloo la ne li nga bind baaxul. ne demal nga bindaat ko. ci loolu lañ nekkoon ci loolu lañ ak bàyyi. boobu ba bàyyi suy dem tay ba sax. wala fu wala fu mu mën a dem. su oto bi xatee daf leen di dugal ci maal bi moom Cheikh Mamadou Mamoun. mu ngi fàttaliku benn yoon. muy dem tay ba ñeseen boobu Jibril mooy dawal. boobu Pa Jibril Samb moo doon dawalal Baye. ki Jaase Baabu Jaase. Baabu Jaase. moo amee woon rajo yi. moo amee woon rajo yi. moom lañ daan wax Jaase rajo. moom lañ daan wax Jaase rajo. oto bi oto bi. oto land vert yooyu armée bi amee oto land vert yooyu nga xam ne moom la armée bi amee woon. gannaaw guerre bi dañ ko cee jaay. gannaaw guerre bi dañ cee jaayoon Mawlana Cheikh Ibrahim. ci kaw bâche la. ci kaw bâche la. waaye suy taw. waaye suy taw. amut euh, essai glace buy fomp. amut essai glace mooy euh, bale yi fomp ndox mi. jaase mooy kaw maal. mooy taw egg ci kaw puju oto bi. di def nii ak loxoom. di fomp loxo yi ak ak ndox mi ak loxoom mel ni bale yooyu nekk ci oto bi. kii mën a gis ndax kii dawal mën a gis. taw bu rëy dab ñu yoon taw bu rëy daal di leen dab ci yoon bi ci yoonu Taïba bi. dem dem ba mu yàgg ñu taxaw. dem ba mu yàgg ñu daal di taxaw. ñu mel ni suñu yoon wi de sax tey tey yàlla tudd ko. bàyyi ne leen dafa mel ni tey suñu yoon wi yàlla ko. mu ngi tawte ba sikkiñam bi su ndox mi ñëwee ci kanam ci sikkiñ bi lay wàccee. bàyyi mu ngi tawte ba nga xamee ne su ndox mi dalee ci boppam bi ci sikkiñam bi lay wàcce. bàyyi fu gën a jege fii. bàyyi ne fan moo gën a jege fii. ñu ne ñu ne ko Ndofane. mu ne kon nañ leen dem Ndofane mu ne nañ leen dem Ndofane. ñu dem fekk fa Baye Cheikh Omar Touré. ñu dem anhu mbubbam jox ko. mu daal di si mbubbam moom Baye Cheikh Omar daal di jox Baye. ñu jël mbubbi Baye bi weer ko. ñu jël mbubbi Baye bi weer ko. ñu xëyee ñu ndekki ba pare ñu paase ko. biñ xëyee ñu ndekki ba pare ñu daal di paase yére ya. bi Baye di dem. bi Cheikh Ibrahim di dem. non ah yéen dama leen di bàyyi sax fii ci ngeen ngeen àggale seen bopp. ne leen yow Cheikh Makki ak Cheikh Mouhamadul Mamoun dama leen mujj bàyyi fii ci Ndofane ci Cheikh Omar Touré ngeen mujj àggale seen beq bi. moom sëriñ bi ñu ne ko bàyyi ñun bëgguñ loolu dañoo bëgg a ànd ak yow. mu ne lu tax. mu ne ko lu tax. mu ne ko foofu lañ bëgg a mu ne ko fañ neexoon ba mokkalee fa alquran foofu lañ bëgg a mottalee suñu béq mi. mu ne kii di wax kan la. mu ne ko kii di wax kan la moom moom Pa Omar Touré ne kii di wax kan la. mu ne ko suma doom la. ne ko kii suma doom la. mu ne kuy mu ne ko kan mooy ndeyam. mu ne ko Ami Ñang mooy ndeyam. mu ne moo ne yow de sa baay sa ne ko moo de de yow sa màkk sa yaay. ak Fatimata Zahra. ak yaa Fatimata maa leen dalal jàng benn benn bis. bàyyi maam Cheikh Omar sa yaay mu yaa Ami Ñang ak yaa Fatimata Zahra man Cheikh Omar maa leen dalal jàng benn bes eh, nga bëgg maa xañ yow nga bëgg maa xañ yiw wii bàyyi bëgg maa jox. ma ko ñu itam ànd ak bàyyi amul lu ñu ko gënal ma bëgg mu ne ko ñu ni tamit ànd ak ak bàyyi amul ko gënal nga bëgg ñoo xañ loolu bàyyi na kenn mënu ci. bàyyi na daal lii moom nekkut rek la kenn du ci mu boole leen ñu ànd moom. suñu dund bi yëpp. seen dund bi yëpp. li ma doon wax ne Baye ak yonent bi ak Cheikh benn benn boo ci waxee wax ngay ji li mu wax ne Baye ak Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu anhu ak yonent yàlla moom sallallahu alayhi wa seen tur dañ koy bànneexoo rek. waaye boo ci wax rek wax nga ko ka ca la ñu Baye jëmale woon man ak Imam Hassan ak Cheikh Mouhamad. noonu la leen Baye jëmale moom Cheikh Mahamadul Makki ak Cheikh Mahamadul Mamoun ak Cheikh Imam Assane Cissé. dañ nekk biñ nekk diireb liñ nekk. diireb liñ nekk. kenn amul droit yi am xaalis ci sa poos. kenn amul droit am xaalis ci sa poos si ñoom ñett. xaalis bi ki ko amee dañ koy ayalante. xaalis bi ki ko amee dañ koy ayalante. waaye keneen am am am sañu sañte am benn dërëm. waaye kenn ci ñoom sañte amee benn dërëm te fayee fekk ayoo ayoo yore xaalis bi. tàggaloo te lu ñuy def ñett ñett lañ koy ndax ñoom ñett ñooñu duñ tàqalikoo te lépp lu ñu war a def rek ñett lañ koy def. mooy loolu mooy àndandoor xam ne. loolu mooy àndandoor bi nga xam ne. yàlla ñu yàlla ñu yàlla moo leen ko tànnal waaye Mawlana Cheikh Ibrahim moo leen ci dimbale moo ko suuxat. ku nekk xam na Cheikh Mamoun. ku nekk xam na ne Cheikh Mahamadul Mamoun. ci tabe ci tabe. moom su ayee. moom su ayee. balaa weer wi am fukki fan ak juróom. balaa weer wi di am fukki fan ak juróom. mu taal ko wala mu maye ko. mu taal ko wala mu maye xaalis bi yëpp. ñun ñu atte. ñoom ñu atte. ne moom dootu téye dépense. ne Cheikh Mouhamadul Mamoun yow dootu la téye dépense ndax joxe. ñoom ñaar moom Cheikh Mouhamad Cheikh Imam Hassan Cissé ñooy téye. loolu moo tax. loolu moo tax. lu ma bëgg dañoo mel ne Baye mës nañoo bind lettre nañu kenn ku ne. mu ne Baye radiyallahu anhu mës na leen a bind lettre na leen kenn ku ne. yaay seetu sa morom. yaay doon seetoog sa morom. soo bëggee gis sa kanam bi nag xoolal kanam ki ci des. soo bëggee gis sa xar kanam bi nan la mel xoolal sa xar kanamu morom bi nan la mel soo ko xoolee nag xam sa bés nu mu mel. suñ seen àndoo boobu. dañoo demoon ba dañoo am suñ làkki bopp. dañoo demoon ba ñoom ñett dañoo am seen làkki bopp. tey suñ toogee moom la ñuy wax nit ñi olof yi di ñu dégg te xamuñ ci dara. boo xam ne ñoom ñett suñ toogee làkk boobu lañuy làkk te fekk ay olof la te fekk olof yi xamuñ si dara. ñuy mottali kóllëre. ñuy mottali ante kóllëre baax ñu baax. ñu bëgg Mawlana ñu bëgg Mawlana Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu. ñu xëy ñëpp wan ma gannaaw. ñu xëy ñu ñoom ñaan ñëpp ñu wan ko gannaaw. boobu la gëlëm bëggatuma dara. mu ne boobu la gëlëm moom sëriñ bi bëggatu dara. lépp lu def. lépp lu muy def. utal ngërmaane Cheikh Ibrahima laa ci bëgg. utal ngërmaane Cheikh Ibrahima rek la ci bëgg. ziyaara bi lu diis ci man ci moom la. dëgg la de su fekkoon ne. su fekkoon ne. dama koy jël di ko jëriñoo ci suma suma soxlaay bopp. daf koy jël di ko jëriñoo ci soxlaay boppam. waaye man dama jàpp ne jaami bàyyi laa rek. waaye moom sëriñ bi dafa jàpp ne moom jaama bàyyi la rek. am na ci ñoom ñu doomi bàyyi ñu ma mag. am na ci doomi bàyyi ñoo xam ne ñoo ko mag. am na ci ñu ma raw. am na ci ñoo xam ne ñoo ko raw. amul fenn fu ma liggéeyalee bàyyi. moom nag mu xool ne amul fenn fu mu mën a liggéeyalee bàyyi. gàmmu yeeg yëngatu yoo xam ne gis daanaa gis bàyyi di ko def rek. loo mooy gàmmu yeeg ak yëngatu yi nga xam ne gis na Mawlana Cheikh Ibrahima di way juróom di ko def rek mu topp ci tànk yooya. moo tax utul benn pal. moo tax moom sëriñ bi utul benn palte. même bopam sax. li def sama adresse. bu ne suñ ne ko adresse am. mooy Cheikh ibrahim mooy safiiru Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu. wala safiirul fayda. wala safiirul fayda. kep ku ci ku ci ku ci falu ku ci ku ci doon xalifa rek. képp ku ci doon xalifa rek. sa ndaw la. moom sa bëkk nekk di la liggéeyal. fu mu fanaan yow la neex. fu mu yow la neex. lu def yow la neex. lu mu def di tamit moo ko sant. moo tax. am na ci ñeeni doomi bàyyi am na ci ñeeni doomi bàyyi sax. léeg-léeg nit ñëw ba sama buntu ñu ñëw ba buntu këram. mu toog ci otoom. mu toog ci otoom. mu ne nga indil ko addiyaam. mu ne ko nga mu ne nga indil ko addiyaam. moom sëriñ bi mu wàcc ak tànkam ñëw indil doomi baay boobu xaddiyaam moom sëriñ bi xam na ne doomi baay ñës yooyu ay sëriñam lañ moom sëriñ bi nee na soxlawul dara bëggu dara lu dul ngërmaane Cheikh Ibrahim. ziyaara bi ren la ci fukki at ak juróom. ziyaara bi ren la ci fukki at ak juróom. dama ne woon du ma ko def mukk. ñun ñii dëkk ci koñ bi di ànd ak yow am nañ droit at bu nekk ñu dajee def suñ dajee. moom sëriñ bi mu ne ko kon nga defee ko sa kër waaye doo ko defee sama kër mukk bi ñu demee ba nit ñi xajatuñ foofu. biñ demee ba nit ñi xajagut xajatuñ kër Oustaz Kéba Lo. nañ dem nañ dem kawoon. mu ne leen dem leen kawoon bu leen ñëw Madina de. penc moo xam ne. penc la moo xam ne. xalifaay bàyyaa ngi fa. xalifaay bàyyaa ngi fa. ak doomam yu góor yi ak jigéen ak doomam yoo góor yi ak yoo jigéen yi. ñenn ñaa ngi ci kaw suuf ñenn ñaa ngi ci ron suuf. ñenn ñaa ngi ci kaw suuf ñenn ñaa ngi ci ron suuf. dara lu muy def lu may toog ne dañ may ziyaara. su amul dara lu muy def toog ci Madina gii ne man la ñuy ziyaara. mu ne loolu caaxaan paase wu ko. ba mu am fukki at ak ba mu am nag fukki at ak juróom. mosuma def carte. mosuta def carte. mosuma oo kenn ne ko mosuta oo kenn ne ko kaay jël kaay jox ma. ñeme naa oo doomi baay wala wala wala sëti mu ne moom ndax ñeme naa oo doomi baay wala mu oo sëti ne ko kaay ziyaara ma. déedéet ñi ma wut ko mukk laa dina te du ko def. bàyyi ni mu ko xormaalee woon. bàyyi ni ko xormaalee woon. te ba muy dund. te ba muy dund. ci laa ko gën a xormaal. bi yi tamit ci la ko gën a xormaal. te loolu ci moom laa ko royee. te ci Mawlana Cheikh Ibrahim mii way juróom la ko royee. soo àndoon moom muy tukki. soo àndoon ak baay muy tukki. dafay jaar ci xabru baayam. dafay jaar ci xabru baayam moom Maam Xaaji Calew na yaru ba mel ni xale bu tuuti. da ngay gis baa yaru ba mel ni xale bu doog a juddu bees. di wax ak koo xam ne yaa ngi jàkkaarloo moom. mel ni kuy wax ak koo xam ne yaa ngi jàkkaarloo ak moom. na ko bay. mu ne nan ko bay. maa ngay tukki. nangam ak nangam moo ma tax nangam ak nangam day moo ma tax a jóg pour may tukki. maa ngi ñaan ma yow maam alaaji maa ngi ñaan sa ndigal ak sa ngërmande. maa ngi ànd ak diw ak diw ak diw. maa ngi ànd ak diw ak diw ak diw ci tukki mi. القران دي وخني ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا ولا الذين قتلوا في سبيل الله امواتا لين بل احياء عند ربهم يرزقون فرحون بما اتاهم الله فرحون بما اتاهم الله من فضله من فضله ويستبشرون بالذين لم ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم لم يلحقوا بهم demet demet ba mu jeex. góor yàlla yi góor yàlla yi. suñ fi jógee moo gën a garaaw suñ fi nekkee. waxtu wi ñu fi jógee seen maqaama mooy gën a garaaw bañ fay dundee. moo tax ku la gën a xam rek ku la leen gën a xam rek yaa leen gën a ragal. moo tax ku leen gën a xam ñoom góor yàlla yooyu yaa leen gën a ragal. ma ne sëriñ bi nee na. su nit ñi di dajee. nit ñaa ngi yëngatu ci lu ne. nit ñaa ngi yëngatu ca lu ne. talibé baye symbole moy la ilaha illallah. talibé baye symbole moy la ilaha illallah. comme ni ko waxee woon léegi. kem ni mu ko bi ñu doon jàngal. seen ko jëndal billet Makka. daf koo jëndal billet Makka. fekk moom xamut lu mooy Mauritanie ak Medina. fekk moom naar bi xamut loo mooy Mauritanie ak Medina Baye. mu yóbbu ko ba Dakar. mu yóbbu ba Dakar moom imaam. toppatoo ko ba mu ba mu dem dugg ci avion. mu toppatool ko kayit yi mu war a ajee ji ba mu dugg ci avion bi. ba mu jël kurusam téye. ba mu duggee moom naar bi mu jël kurusam téye. laa ilaha illallah laa ilaha illallah. naan laa ilaha illallah laa ilaha illallah. bañ wàcc Nigeria. bañ wàcc Nigeria. ñëpp di jël seen bagage moom xamul lu muy def. ñëpp di jël seen bagage te moom xamul sax lu muy def ndax mës ta tukki. kenn ñëw. kenn ñëw. temps yooyu sécurité bi gënoon naa oyof. temps yooyu sécurité bi gënoon naa oyof. safoor yi dañ daan ñëw ba ci kii sax avion bi sax pour nga jëlal sa bagage. safoor yi dañ daan ñëw ba ci avion bi ngir jëlal la sa bagage. ñu ne ko foo jëm. ñu ne ko yow góor gi foo jëm. mu ne laa ilaaha illallah. mu ñu jël bagage bi ne ko nañ dem. bi ñu demee ñu di ko mu di ko dawal. bi ñu demee ñu di ko dawalal. fekk bi sa àjjuma la. fekk bi sa fekk bi sa àjjuma la. mu fekk mbooloom Baay. mu fekk mbooloom Cheikh Ibrahim. foto Baay baa nga ca kaw. foto Baay baa nga ca kaw. ñoom ñëpp ñuy wax. ñoom ñëpp di naan wax di wax ne لا إله إلا الله لا إله إلا الله mu ne ko fii la mu ne ko fii laa jëm mu ne ko fiila la kon nag loolu doy na sant yàlla yal nañu yàlla méngoo yaa rabbi lépp loo xam ne lépp loo xam ne ñu ngi koy ñu fii di ko barkeeloo jumaa joo xam ne. joo xam ne. mu nga ca Paymaar mu nga ca Paymaar. suñ su magam Alxaaji Abdoulaye Niass. yal na yàlla yokk leeram yal na yàlla yokk leeram yaa rabbi. dafa a waxtaan ak man. dafa mës a sëriñ bi ne ko. dafa am lu ma bëgg. dafa am lu ma bëgg. mu ne li nekkoon nekk mu ne ko li bàyyi nekkoon nekk fu ne. man mu ne moo mënu ko. sama yaram mayu ma ko. yaramam mayit ko ko. li may kaw la ko néew. li muy toog kaw la ko néew. tey bala koy ne. damaa bëgg yéen seen yéen suma samay rakk. yee damaa bëgg yéen samay rakk. ku ma placé la fenn. ku nekk ma placé la fenn. ndax dana am dëkk boo xam ne. ndax dana am dëkk boo xam ne. dana am xew wu ne. xew mbégte wala xew tiis. am xew mbégte wala mu am xew tiis. fekk nekkuma fi wala wala suma yaram neexut. te fekk ma la Hadj Abdoulaye nekk moo fi wala suma yaram neexut. su boobaa yow nga dem utu ma foofu. su boobaa yow miñ placé foofu nga dem utu ko foofu. su fekkee dañ ma dañ ma soxla. su fekkee ne dañ koo soxla. yow yaa gën a placé pour indi leen ci man. yow yaa gën a placé pour indi leen ci man. mu ne ma tànnal dëkk bu la neex. mu ne ko yow Cheikh Mouhamadoul Macky tànnal dëkk bu la neex commencement bi koosi la ma ebaloon. commencement bi koosi la ko bàyyi ebaloon El Hadj Abdoulaye ebaloon. mu ñëw ne ko sëñ mu ne damaa jaaxle. mu ne ko ma mu ñëw moom Cheikh Mahamadul Makki ne ko El Hadj Abdoulaye man damaa jaaxle. mu ne ko damaa gis foofa foo xëyal liggéey ku fa bëgg liggéey am laaj na xaalis. mu ne ko damaa gis place boo xam ne ku fa bëgg liggéey laaj na xaalis. suuf sa bàyyee ko moom. te suuf sa suufa bàyyi la. damaa xamul loolu nu muy demee. damaa xamul loolu ëllëg nu muy demee. mu noppi ba ci kanam. Aji Abdoulaye noppi ba ci kanam. mu ne ko feeg maa fi day. mu ko la laaj garanti ne ku suuf si ne leen leen ci Alaaji Abdoulaye mën garanti loolu feeg maa fi ne. mu ne su fekkee foofu dafa ma tànnal feneen. mu ko su fekkee ne foofu feebuwul a ma tànnal la feneen. mu ne ko mu fekk maa ngi ànd ak Baye fekk mu ngi ànd ak Ibra Lo. ñuy wax Sokone. ñuy wax Sokone. ñu dafa bëri ay ay ay ay këri këri diina. ñu ne ko Sokone daal dafa bëri ay këri diina. ndemeen yaa nga fa. ndemeen yaa nga fa. waa Tiwaawan yaa nga fa. murid yaa nga tamit ñu nga fa. soo ñëwee yow doo doog a su doo su ñëwee doo yow soo ñëwee doog a installé. mbaa loolu du def tardé ci yow. mbaa loolu du def tardement ci yow. fekk maa ngi ànd ak Baye Ibra fekk moom sëriñ bi mu ngi ànd ak Baye Ibra Lo. bàyyi bi ne ko tey nga ma ko tey maa bàyyi ma yóbbu ko Paymar. ma yóbbu ko Paymar. keroog la mës a dégg baata turi turi Paymar. mu ne moom sëriñ bi mu ne keroog la dégg baata Paymar. mu ne ko dem leen su fekkee neexut ngeen ñëw ci man. mu ne ko dem leen su leen dëkk ba neexut ngeen ñëw ci man. ñu fa dem. ñu fa dem. weeru koor la tollatoon. weeru koor la tombetoon. ca fukki fan ya. ca fukki fan yoo njëkk ya. gannaaw gannaaw ngi fekk nit ñi di ngi fekk nit ñi di juma. nga xamee ne loolu amna. nga ba nga xamee ne ñu waxtaan ak bañ ñu waxtaan ak ñu ne ñu ne ñu ne bismillah. ñu ne ko bismillah. mu ñëw wax ko El Hadj Abdoulaye mu ñëw wax ko El Hadj ba nawet ba jeexee. ba nawet ba jeexee. dañuy gàmm. ñu ne dañuy gàmmoo. ma yi nga xam ne bàyyi ko doon. ma ne leen ju moom sëriñ bi mu ne leen. yéen waa Paymar jumaa ji nga xam ne bàyyi ko doon. ba léegi suna yi di sax ci biir. ba léegi suna yi di sax ci biir jumaa ji. ngeen ne amul na ngeen di gàmm. kenn du fi gàmm ngeen ne da ngeen di gàmm te mot li woon jumaa kenn du fi gàmmoo. toog toog nañ ay at. waxtu wuñ dajalee tool bi. waxtu wuñ dajalee tool bi. ba ñëw ci penc mi. ba ñëw mu ñëw ci penc moom sëriñ bi. ñu ne ma nangam la. ñu ne ko tool bi nangam la. mu ne leen def naa ko ci jumaa ji. ñu ne ma ñu ku nekk def li nga mën. ku nekk daal di def li nga mën. mujj gi ñu ne ñoom daal dañuy am kersa. mujj gi ñoom waa Paymaar ne ko ñun daal sëriñ bi am nañ kersa. fekk dafa am ñuy bindu. fekk dafa am ñuy bindu. mu topp leen di topp leen di leen laaj lañ bindu. ñu ne soo laaj foofu daal dañuy am kersa. ñu ne ko yow daal soo ñëwee di laaj foofu dañuy am kersa. Eh, kon bàyyi leen mu ne leen moom sëriñ bi ne leen kon yéen waa Paymar ba leen mën danaa ko def. daan nañ ko bayal ay tool. daan nañ bayal jumaa ji ay tool. waaye diirab li ñuy defar jumaa ji. waaye diirab lu ñuy defar jumaa ji. lu mu mës a jox foofu laa koy def. lu mu ko mës a jox rek ci waa Paymar jugee ci waa Paymar te ca kër te jumaa jooju la ñu dem. bañ paree. bañ paree. Mawlaaya Xaaj Abdullah. Mawlaaya Xaaj Abdullah. ànd ak sëñ Ahmad Daam. ànd ak Cheikh Ahmad Daam. ak Cheikh Ahmad Tidiane. ak kàngam yi leen waroon ak kàngam yi nga xam ne ñoo doon dimbalante ak ñoom yëpp ci liggéey bi. mu jiite fa julli fa moom El Hadj mu ñëw jiite ajuma foofu ca Paymar. juma jooju nag. juma jooju nag. moom lañ dem boobaa ak léegi ñi fanweeri mu ne boobaa ak léegi fanweeri at la ak juróom-ñett. juma ji tuuti ci dëkk bi. juma ji daal di tuuti ci dëkk bi. gis ne. moom mu sëriñ bi mu gis ne. suñuy suñ ñi nga xam ne ñooy suñu royteef. ñi nga xam ne ñooy suñu royteef Cheikh Ahmed Tidiane. Cheikh Ahmed Tidiane. def na jumaa ju mel noonu juma jumaa ju mel ni jumaa yi métti na ja. def na jumaa ju mel noonu ni jumaa yi métti na ca Daaru Mbitéen ca Daaru Mbitéen. Alhaji Abdullah. Alhaji Abdullah. gis ngeen jumaa jëm def ci Taïba Niassène. gis ngeen jumaa jëm def ca Taïba Niassène. Cheikh Ahmed Dame. Cheikh Ahmed Dame. gis ngeen jumaa jëm def ci. gis ngeen dem jumaa jëm def ca Taïba Mbitéen. Cheikh Mouhamadou Aqibu Cheikh Mouhamadou Aqibu. Cheikh Mouhamadou Lamine. Demet Demet ba mu jeex ci doomi bàyyi. mu nekk nii. mu ne leen nag fu mu nekk nii. man la ma mënoon mënatu mu ne moom sëriñ bi la ma mënoon mënatut ko. waaye nisar na. waaye nisar na ne. mooy ma tabax jumaa ju mag. mu moom itamit mu tabax jumaa ju mag. beneen jumaa ju mel ni daaru bi ji ci bi teen. mu mu mel ni jumaa ji mi nekk ci daaru bi teen. looloo tax ma nangu ziyaara bi ren. looloo tax sëriñ bi nangu ziyaara bi ren. waaye dërëm bu ci génn. waaye dërëm bu génn ci ziyaara bi. def naa ko ci jumaa mu ne sëriñ bi ne def na ko ci jumaa ji. ak leneen lu ak leneen lu mu am. tax ma moo tax mu ñëw. bokk ak yéen jotaay bii bokk ñun jotaay bii. di gërëm nag di gërëm nag. mbokki bopp yi mbokki boppam yi. su kenn ñëwoon su kenn rekk ñëwoon. mu doy mu doy. oote yomb na oote yomb na. waaye oote ñu oysele waaye oote ñu oysele moom jafe na. ci jamono ji jafe ji ci jamono ji jafe ji. mbokk yëpp ñëw nañ mbokkam yëpp ñëw nañ. ku lim juum dajal. waaye kàngam yi Mawlana Cheikh Ibrahim waaye kàngam ku nekk gis na ci doomam alhamdulilah. bi nga xamee ne. bi nga xamee ne. Alhaji abdullah mooy suñ mag ñoom Alhaji abdullah Niass mooy seen mag ñoom ñëpp. moo tax ma ne bés bii nañ ko nañ nañ ko jëmmalee Alhaji Abdoulaye. moo mu ne bés bii nañ ko darajaale Alhaji Abdoulaye. dañuy jàng ca Kaolack. ba ñuy jàng ca Kaolack. boobu yoon wi amut transport. boobu yoon wi transport amutoon. ndaw ñi ñëpp ñu mag ñi ñoo leen ñoom ñu ndaw ñi ñëpp ñu mag ñi ñoo leen di tunqum. ñu mës a génn fekk baa ngi toog ci otoom. ñu mës a génn fekk baa ngi toog ci otoom. mu ne kaay leen. mu ne leen leen. nu ngeen di ànd nu mu ne yéen nu ngeen àndee. ñun xamuñ li ñu ne ko moom ñoom xamuñ li muy wax. mu ne ko yow Cheikh Mamadou Mbacké indi sa loxo mu jox ko mu jox jël Cheikh loxo Cheikh mohamed Mouhamadul hadi ne ko bolé na len daal di jël loxo sëñ Maamoun. de dool di jël loxo serigne mamoun tek ko ci loxo Cheikh mohamed teg ko jël imam hasan jël imam hasan tek ko ci loxo Cheikh Mouhamadul Amin. teg ko ci loxo Cheikh Mouhamadul Amin Cheikh Ibrahim. amoon na rakkam joo xam ne moom moo man maa ko mag waaye moom moo mag sëriñ Mamoun. sëriñ bi moo ko mak waaye moom moo mag sëriñ Mamoun moom kooka. mu teg kooku ci loxo mu teg kooku ci loxo. Cheikh Mahi Cheikh Mahi. ànd booba ànd gannaaw mënuma tuddee ñëpp. moo tax mu ne gannaaw moom mënta tuddee ñëpp. mu njëkkee Alaaji Abdoulaye. mu njëkkee Alaaji Abdoulaye Mañas mi mag. waaye dana ci boole sëñ Haadi. waaye dana ci boole sëñ Mouhamadul Haadi mi nga xam ne. Baay jël suma loxo teg ko ci loxo. Baay radiyallahu anhu moo jël loxo sëñ Mouhamadul Mamoun teg ko ci loxo sëñ Mouhamadul Makki. ba nga xamee ne ba nga xamee ne tari na alquran. ba nga xamee ne tari na alquran moom sëriñ bi. Baay jox ko néeg. Baay jox ko néeg. ba ko taree dafa doon demal ci sama. ba ko ba sëñ Mouhamadul Makki taree def ne ko demal ci sama Cheikh Mouhamadul Haadi. ànd boobu mës ta dagg. ànd boobu mës ta dagg. boobu sëñ Haadi amul soxna. boobu sëñ Haadi amul soxna moom amul soxna. man moom. moom moo dëkk ak Cheikh Mouhamadul balaa eewu. balaa eewu. dem teen mu dem teen juma. rootal ko lu muy sangoo rootal Cheikh Mouhamadul Hadi lu muy sangoo. seet yére yi tilim. seet yére Cheikh mu yóbbu ko ca fóotkat ba. moo doon ndawam ci suufam. moo doonoon ndawam ci suufam doonoon booyam ci kër gi. ànd boobu mësta dañ moo tax. moo tax. suy gàmmu sax. sax. Cheikh Mouhamadul Haadi. mi ngi ci. mu eh, rëlam mu ngi ci. waaye suy gàmmu itam. waaye suy gàmmu itamit. Cheikh mi nga xam ne. Cheikh Mouhamadul Mahi mi nga xam ne mooy xalifa. daf ñu daan dal daf daan jël su guddee. daf leen daan jël ñoom su guddee. gis naa gis naa mu Cheikh mu ne gis na bi Cheikh Cheikh Omar mu Cheikh Ousmane Fati. Cheikh Ibrahim Baye Ousmane Baye Ousmane. su su guddiwaan su guddiwaan. dañuy toog ci buntu kër kër xadifaat nekk. dañuy toog ci fukki yaa kër xad yaa nekk léegi. mu di ñu nettali. mu di leen di nettali. xistaa yonent bi. xistaa yonent bi. moom Cheikh Mouhamadul ak xulafaaw ak xulafaaw xeex yi nekkoon seen diggante ak xeex yi nga xam ne nekkoon na seen diggante. moo tax bi ma njëkkee jël téere jàng jàngal sama bopp xam li muy wax rek. moo tax bi mu njëkkee jël téere jàngal boppam xam li téere bi di wax. loolu moo ma njëkk a loolu moo ko njëkk neex jëf ji ko Cheikh Mouhamadul Mahi al Khalifa defeloon. moo tax diireb li may jàng misra. moo tax diireb li muy jàng misra. madd yooyu dama ci maa ciy am cent vingt pour cent. madd yi moo ci am moo ci am vingt sur vingt. fekk Baye waxoon na ma ne. fekk Baye radiyallahu anhu waxoon na ko ne su ngeen jàngee ba pare su ngeen ñëwee ma jàngal leen. su ngeen dem leen ngeen jàng su ngeen ñëwee ma jàngal leen. moo taxoon man amoon benn problème ci pour euh, ci avenir moo taxoon moom amutoon benn problème ci avenir am. jàng bi ñëw bàyyi jàngal ma. mu ne moom foogoon ne daal su jàngee ba ñëw rek bàyyi ko. ba mu waxee ba pare surtout Macky olof déggu ci ba mu ko ba mu ne ko surtout Mouhamadul Macky moom moom déggu ci dara. dafa foog ne loolu dañuy dem ba si ñëw mu jàngal ñu. mu ne moom dafa foogoon ne su demee ba ñëw bàyyi jàngal ko. bi may def sama licence. bi muy def licence am ñuy laaj waaj examen. ci lañ wax ne na Cheikh ibrahim uyu ji boromam. bi ma dellu see. mu dellu see. ndeke kii yi nga xam ne. ndeke kii yi nga xam ne. madde yi nga xam ne. ci siira nabi madde yi nga xam ne ci siiratu nabu yee la ne. gis naa ne loolu moom dominé la woon gis na ne moom loolu moom dominé la woon. waaye nuñ koy waxee ci olof. waaye nuñ koy waxee ci olof. moo tax may topp. motax muy top waxi baay yi di ko dégluwaat. su degge olof ci cassette yoy la ko jàngee. loolu yëpp. dañ koy wax ngir sante yalla rek. dañ koy wax ngir sante yalla wax ngir sant yàlla. wax ci ñi oote ni ñu ñëw wax la ñi oote ni ñu ñëw uy len dafa wax ne du wax benn baat. waye li ñi def ni ëpp na wax. waye li ñuy def nii ëpp na wax. waaye nag. waaye nag. nettali ci lenn. nettali ci lenn. alquran moo wax ne fa zakkir fa inna zikra tanfaw. alquran moo wax ne fa zakkir fa inna zikra tanfawul muminin. te léegi benn benn yi nga xam ne fekkoon nañ bàyyi am ay xisa yu ndaw ci moom. te léegi benn benn yi nga xam ne fekkoon nañ jamonoy bàyyi ba am xisa yu néew ci moom. mu ngi bëgg a jeex. mu ngi bëgg a jeex. ba tax na léeg-léeg nga dégg ñu wax dara ci bàyyi loo xam ne. ba tax na léegoo léeg nga dégg ku wax ci bàyyi loo xam ne. mësta doon jikkoy bàyyi. mës nañ ma mës na am na koo mës a laaj. am na koo ko mës a laaj. mu ne ko dégg naa bàyyi ganaar daaw lekk daaw lekk mbagg yi. mu ne kon ne dégg naa bàyyi ne ganaar dootul daanu daan lekk mbagg yi. ne ko sama yaay moo daan toggal bàyyi. ne ko man sama yaay yaa ami ñang moo daan toggal bàyyi. waaye bàyyi dafa jotutoon ci mbagg yi. waaye bàyyi dafa jotewutoon ci mbagg yi. su defee ba pare. su defee ba pare. doomam yu mag yëpp dañuy ñëw néegam mu yekkal leen lu leen tànk yeeg mbagg yi leen def. doomam yu mag yëpp dañ daan ñëw. ci néegam mu sedd leen mbagg yi ak tànk yi. moo tax la ca des da koy yët bàyyi. bàyyi bañu ko waaye daf ko gisut. bàyyi bañut mbaggi ganaar waaye fa gisutoon mbaggi ganaar. dana tax nga dégg loolu rek nekk di bëgg a nettali karaama naan bàyyi du naan lekk ganaar fekk da ngaa xamul ne da ci doon joti rek waaye nag su ci jotoon ni lekk ko. loolu nag masala bu tuuti la. kenn ku ne war nga. kenn ku nekk war na ci ñun. suñ suñ dajee yii. bii dëkkab xam dëkk bi dëkkab xam-xam la. loo fi wax da nga gis loo fi wax da gis ku la gàgganti làkk boo fi làkk da gis ku la làkk. gannaaw baay mooy suñu misaal. waaye gannaaw baay mooy suñu misaal. war nañ di xam yenn yu tuuti yi nga xam ne nit ñi duñ ko waxtaanee. war nañoo xam yenn yu tuuti yi nga xam ne nit ñi duñ ko waxtaanee. te ñu te te ñu ngi koy soppi. te ñenn suñ ko waxtaanee wut ñoom ñi ko war a waxtaanee ñenn ñi dañ ko soppi. ak a te ak bëri luñ soppi nag ci baay ñu ngi sant yàlla bu ñu ngi sant yàlla ci bu baax. di leen gërëm. di leen ñaanal yàlla. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax ku la defal teraanga. fay ko lu ëpp lim la defal. soo lottee ci loola. bu mu la njëkk ci buntam ñaan yàlla. sëriñ bi nee na mu ngi ñaanal yàlla képp koo xam ne teew na fi. ab kep ko xamne ne. oyse nga ci oote bi yalla bi bi du Mouhamadul Makki de. baay rek ngeen si ñi fi ñew baay rek lañ am ak affaire. kuñ ne yaw la. nga ne yaw la. du yaw de. baay la. kon nak ñu ngi sant yalla di gërëm mbokam yi nek ci chamoñam waxna len ne waxna len ne. Abdoulaye mooy mooy mooy mooy boppi kër gi. El mooy boppi kër gi. waaye ñi ci des dañ cee topp topp topp topp. waaye ñi ci des nag dañ cee topp toftaloo ci. ni ñu woon ñoom. ni ñu àndee woon ñoom. suñ ko xamoon ñun. suñ ko xamoon ñun. kenn du leen raw ci Medina. kenn du leen raw ci Medina. ndax kenn ku nekk rek sa morom moo la gënaloon. ndax kenn ku nekk ci ñoom sa morom moo la gënaloon moromam. lu mel noonu mën nañ ko wax ci Cheikh Ahmed Dame. lu mel noonu mën nañ ko wax ci Ahmed Dame. woon nañ ko wax Cheikh Ahmed Tidiane mën nañ ko wax ci Cheikh Mouhamad Nazir ak ñëpp ak mboolem doomi Cheikh Ibrahim yi. yu góor yi ak yu jigéen yi. yoo góor yi ak yu jigéen yi. mu ngi gis fii ay rakam. doomi Cheikh Lislaam yi. mu ci jiital suñu bàjjen Zeyda Ndeye Ayda. ak ñi si des ñëpp gis na leen. ak doomi baay tax yi. doomi bàyyi lañ rek olof a koy defee noonu rek waaye doomi bàyyi lañ. doomi bàyyi olof a koy wax rek waaye doomi bàyyi lañ. bàyyi. bàyyi ku ne am nga bàyyi. ku ne am nga bàyyi. waaye suñ ne bàyyi rek sa xel. waaye nag suñ ne bàyyi rek sa xel yi dem ca bàyyi ñes. waaye ñi sant ñes itam. waaye ñi sant ñes itamit. bëri nañ. bëri nañ. dalee ko ci El Hadj Abdoulaye. dalee ko ci El Hadj Abdoulaye mu mag ma. nga xam ne mu ne mu ne mu cukku sax ci moom. nga xam ne bàyyi nee na xam-xamu maam El Hadj Abdoulaye Niass ak njuba moom sellam baay mu ne xegu ko fii ci cukku. baay siiwal na ko. baay siiw waaye siiwal na mu baay. siiwal na ko xam ne siiw a baatu ñes. bés waaye nga xam ne baay siiwal na ba nga xam ne baatam ñes. Cheikh Mouhamadul Mahi. Cheikh Mouhamadul Mahi. barki démb rek mu ngi waxtaan. barki démb rek mu ngi waxtaan. ak waa Kaolack wax ne ak waa di leen wax na yéen. ngeen ngeen ngeen di xeeb. Kaolack gii ngeen di xeeb. fële ma jógee ca Darfour. fële mu jógee ca Darfour. am na fa ñoo ñu eh, ñu sant Niass. am na fa ñoo xam ne ñu ngi tudd Kaolack. ñoo xam ne seen tur yi la. ñu ngi tudd Medina. ñu ngi ak ñu tudd Taïba. yooyu yëpp su amee lu muy tegtale. bàyyi moo ko def. bàyyi radiyallaahu anhu mooy ki ko def. waaye ki tax mu mën koo def. waaye ki tax ñu mën koo def. mooy njëloxtoon la muy alaaji. mooy njëloxtoon la maam Hadj Abdoulaye Niass Al Kabir. yal nañu ko yàlla fayal yal nañu yàlla fayal maam Hadj Abdoulaye. ñun am nañ lu nekk. ñun am nañ lu ne. waaye. waaye. nañ fexe. nañ fexe. liñ am ñu xam nuñ koy jëriñoohee addina bi yëpp bi yëpp ñu ngi jëgaan si si ñun wa lu tax nag ñun may googu ñu xam lu tax duñ ko exploité yal nañu yàlla dimbale yaa rabbi yal na yàlla jotal mboolem càkkutee fi guddi na tey bés bu xat bés bu xat la mu ne gis nga Cheikh Ahmad Samb mii ak suñ baay Cheikh Fall mii. li ma leen ooyee tuddee leen ko lim leen ooyee tuddee leen ko. dama ko def pour. def leen koo def pour. médaillé ko Cheikh Ahmed Tidiane. ko alxalifa Cheikh Ahmed Tidiane di magam. boo xam ne boo xam ne. ba mu doyee gënee doo gone ci seen masque. ba mu gënee doo gone ci seen masque. boobu ba léegi ñoom ñu ngi ànd ñu ngi moom ci cercle bi. léegi ñu ngi ànd ak moo ñoom ci cercle ba ca Dakar. li ko yàlla may yëpp. li ko yàlla may yëpp. kër boppam mësta ut këru boppam. kër Amat Samb mii kër Amat Samb mii. Amat Samb magam. moom la nekkoon këram. ba mu gaañoo. kóllëre googu moom papa Cheikh bëggul koo toxal. mu toxal ko ci Amat. mu toxal ko ci Baay Amat doomi Cheikh Tidiane yi. doomi Baye lii lu ko waral. xamuñu woon xandoo bii lan moo ko waral ak lu tax. waaye xam nañ dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg. waaye xam nañ ne dëgg dëgg dëgg dëgg. nitu yàlla nitu yàlla. su tànnee su tànnee. soo xamul sax noppi sax soo xamul rek noppi sax. loolu la yàlla tànn la yàlla tànn mooy li yàlla tànn. si Baye Cheikh Fall a ngi nii. moom papa Cheikh lañ ko tuddee. buñ ko defee ci mu doon ki directeur port bi. biñ ko defee muy directeur port. signature ba mu njëkk signé. signature mu signé. Papa Cheikh la. mu ne du baye kenn duwaañe ko mom moo koy duwaañe. mu ne du baye kenn de duwaañe ko mom moo koy de ci alalu boppam. nañ ci. ragalut. waye mom ragalut. xamna ne ki tax muy def. xamna ne ki tax muy def. kenn mënulu ko dara. waaw waaw nekk na ca liggéey booba. nekk na ca liggéey boo xam ne liggéey xaalis la. liggéey boo xam ne liggéey yëpp xaalis la. génn ca retraité. ba génn ca daal di retraité. ak loxo yu set wecc. ak loxo yu set wecc. ko neex mu dem fu ko neex mu dem. ndax am na ñoo xam ne am nañ lu gën a ndax am nag am na ñoo xam ne am nañ lu gën a tuuti loolu de. waaye feeñal nañ ci seen jikko. waaye seen jikko feeñ na ci ba wane ci ak ak doyadi kon nag yal na yàlla yokk seen teraanga. ñoom ñaar ñii cercle bi yëpp lañ ñoom ñaar ñii muy suñu baay Ahmad sàmb ak suñu baay Cheikh Fall cercle bi yëpp lañ représenté fii. waaye ak képp ku waaye tamit ak képp ku bëgg papa Cheikh. papa Cheikh. papa Cheikh. su ma waxee ne bëgg naa su moom sëriñ bi su waxee ne bëgg na papa Cheikh. mu ne loolu naturel la ci moom. ndax ñoo bokk ndey ñoom ñaar daal di bokk baay. mën nañoo bokk ndey bokk te duñ bokk mën nañoo bokk ndey bokk baay te duñ bokk jikko am na de. waaye de. def ma ci boppam. moom Cheikh Ahmed Tidiane def ko ci boppam. bor boobu mënu koo fay. bor boobu moom sëriñ bi mu ne mënu koo fay. lu mooy ci njabootam lu mooy ci njabootam ci gannaawam. am na ku jógee fële Niger. am na ku jógee fële ca Niger. ñaari nit lañu woon. ñaari nit lañu woon. seen billet bi 800000 lay jar. seen billet bi 800000 lay jar. ne ñaar ñoom ñaar dañuy ñëw. ñu ne ñoom ñaar dañuy ñëw. mu ne leen te ngeen a yónnee li ngeen di li ngeen li ngeen di passé te ñàkk ñëw. mu ne leen li ngeen war a passé tey ngeen koo yónnee te ñàkk ñëw. ñu ne bi yëpp a ñu ne ko addina bi yëpp a jafe sëriñ bi. frontière bi tëju. ñu ne ko frontière bi tëju. xaalis jafe. xaalis jafe. waaye ñu ne ñoom itam gannaaw mënuñoo def yëpp. waaye ñoom ñu ne ko gannaaw mënuñoo def loolu yëpp. ñu xebal ko moom mu ñëw ñu daggal ko biyee mu ñu xebal ko moom mii ñu daggal ko biyee mu daal di teewal mbooloo moom ñu daal di ko. ñu dool ko jox 600000. mu ñëw teg ko ci loxoom. kon nag ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di sant yéen ñëpp. ñu ngi leen di ñaanal yàlla. fàttewul kenn fàttewul kenn mu ne moom sëriñ bi. waaye xel dafay fattu waaye xel daal daf day day fattu rek. waaye oyu ji bii ngeen oyu si ko. ko ñaanal yàlla mu ne moom ñu ngi leen di ñaanal yàlla. mënu koo fay. waaye dina ñaan yàlla. jottali ko ci Mawlana Cheikh Ibrahim. mu ootu ko ci. fay leen gërëm leen leen gërëm leen. amiin yaa rabbi di ko seedeel ci kanam yonent bi mu ne moom sëriñ bi mu ngi seedeel ci buntab yonent ne ko. ñii gërëm naa leen. mbooloo mii gërëm na leen alhamdulilah. su fekkoon ne man kenn rek maa oote. su fekkoon ne moom kenn rek moo oote. kon suma waa kër rek laay gis. mën na xam ne waa këram rek lay gis. waaye bi nga xamee ne. waaye bi nga xamee ne. mbooloo mi njabootu baay ngi ci. mbooloo mi njabootu kër ma alaaji ñëpp a ngi ci. ñëpp ñuy soppee Cheikh Ibrahima ñu ngi ci ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di gërëm di ñaanal Cheikh Mouhamadul Mahi mi nga xam ne moom la responsable Cheikh Ibrahima yëpp tegee ci kawam tey dara lu mooy ay jëwriñ yu nekk ci seen. ñoom duñ dara lu mooy jëwriñ yu nekk seen kanam rek di leen liggéeyal. mu ngi mu ne mu ngi yaral ñaanal oustaz Barham Ñang. dafa nekkoon moom oustaz Barham Ñang doon di daal doon xaritu doomi baay yëpp. na a am na ku ci ko mës a wax kenn ci yéen seen bàyyi laa mu ne man faruma kenn ci seen bàyyi laa farat ndaw dëgg. kon nag ñun ñëpp seen jaami bàyyi lañ. nag ñun ñëpp seen jaami bàyyi lañ. te doom gi taalibe bi mais moomu gënal. te moom sëriñ bi nee na doom ak bàyyi gi taalibe bi moo ko gënal waaye rafetal na ñaar yëpp. yonent yàlla nooxul. yonent yàlla nooxul alayhi salaam. kanaan doomam. di doomam. yàlla nee na ko bokk sa doom. yàlla nee na ko yow noox kii duhut sa doom. te te te te moo ko jur. te moom Kanaan moo ko jur ci ndigam. waaye bokkuñ bokkuñ. waaye dañoo bokkut jëm-jëm dañoo bokkut pas-pas dañoo bokkut jubluwaay. kon ñi nga ñun ñi nga xam ne ñoo bokk pas-pas. ñoo bokk ndey ñoo bokk. ñun ñoo bokk ndey ñoo bokk baay. yal nañu yàlla méngoo yaa rabbi. yal na yàlla dëkk bi. yal yàlla aar dëkk bi. jafe-jafe yi ñuy dégg yëpp. yi ñuy dégg yëpp. ci Ukraine ci Ukraine. nit ñi di xeex nit ñi di xeex. di xuloo di xuloo. moo nar feeñ rek. diine lislaam moom moo moo war a feeñ rek. bàyyi su daan nettali yahudi. bàyyi moo leen génne ba nekk ca xay ba nekk Talxa. de mu ne yonent bi. moo leen génne moo leen génnee. ñoom ñoom ñoom ñoom yahudi. ba pare ñu dem ñu dem xaybar. ñu dem xaybar. Omar ibnu Xataab génne leen foofa. Omar ibnu Xataab daal di leen génne foofa. ñu dem Saam. ñu dem Saam. mu ne Saam googa nag. mu ne Saam googa nag. safara leen fa nar a moo leen fay jëlee. xam nga Ukraine ak Russie. xam nga Ukraine ak Russie. président Ukraine bi. président Ukraine. mi ngi oote lañ bëgg a jeexal. mu ngi mu ngi oote na yéen yahudi ñun julli ñun lañ bëgg a jeexal. comme nañu Allemagne doon bëgg a comme nañ na leen Allemagne bëggoon a def. kon kuy yahud na ñëw ci xeex. kon rek ñëwal àtt ci xeex bi. seen ay yal na yem ci seen. seen ay yal na yem ci bopp ñoom. ndimbal yàlla dem ci lislaam ndimbal yàlla doole lislaam ñëw ci lislaam yàlla bu ci kenn ëppale Afrique yàlla bu ci kenn ëppale Afrique su may gi ñëwee yàlla buñ ci kenn ëppale jullit ñi ak fuñ mën a ne waaye pays Cheikh Ibrahim bi yàlla nañ téye drapeau ba comme ni ko Baye waxee woon Baye radiyallahu anhu ma waxoon ne yawma alastu bi rabbikum ñëpp di rëj rëjloo kuñ dem. ñu ne demal ci diw. ñu ne demal ci diw. la ko dalee ca Adama. la ko dalee ca Adama. ba ci yonent yàlla Isa. ba ko ba ci yonent yàlla Isa alayhi salaam. ñu daal di dem ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ba mu ñëwee moom yonent mu sujjóot ci kanam boromam. yàlla ne ko tey boromam ne ko sigil tey du bisab sujjóot. mu ne ko jahannama mu ngi nii ne dañ ko jox ndigal mu lakk ñëpp. mu ne ko jahannama mu ngi nii ne dañ koo jox ndigal pour mu lakk jaam yëpp. moom yàlla ne ko borom bi subhaanahu wa taala ne ko ba mu des yow ak sa topp. mu ne maay njëkk a fëgg buntab aljanna. moom yonentu mu ne man maay kii njëkk a fëgg buntab aljanna. ñu ne Muhammad ibn Abdullah. yow ma sama borom digaloon ne nga dugg sa ñu ne ko yow lañu suñ borom digaloon ne kon duggal yow ak say suñ say ñoñ. Mawlana Cheikh Ibrahim. Baay radiyallahu anhu moom. mu ne bés booba. mu ne moom bés booba. mayit kenn mu dox diggante moom mayit kenn mu dox diggante moom ak yonent bi. lu muy Cheikh Ibrahim. lu muy Cheikh Tidiane radiyallahu anhu. muy mu ne waaye saxaabaam yi nag. mayit kenn mu dugg ak mu jaar diggante moom ak yonent lu dul saxaabaam yi. mu ne loolu doy na sant yàlla alhamdulillah yal na yàlla méngoo suñuy mbir wax ji yëpp fasahaadi rek moo ko war déedéet ku su fasaawoon mën na koo tënk ci fukki minute ak juróom yàgg gi baax na de su bëggee wax lii da ngay wax ne su bëggee wax day wax lii lii waaye yàgg gi baax na de ndax ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax a baax di leen ñaanal yàlla fii ba toog déwén fuñ toog ci ñaan ci barabam ñaan dana ñu ñaanal ñun ñu teew fii amin ya rabbi ndax li ngeen ñu defal ñun mënuñ leen koy fay li ngeen ñu defal bàyyi ngeen ko defal li ngeen ñu defal yonentu sallallahu alayhi wa sallam ngeen ko defal yàlla yàlla méngoo ñu ya rabbi yàlla bu fi kenn indi benn haajo lu mooy yàlla fañ na ko ya rabbi ku fi indi ràgg yàlla yàlla saafara ko min ya rabbi ku fi indi ngelemaane yàlla gindi ko ya rabbi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 سبق سر الحق بالحق ولا إلى صراطك المستقيم وعلى آلي حق قدره عظيم العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق سر الحق بالحق ولا إلى صراطك المستقيم وعلى